mbokk ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak télévision Futurs Médias di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci yéen ñëpp ni ñu ko baaxoo àjjuma junne ci waxtu wi ci kàttanu borom bi ñu ànd ak yéen seen émission yeewu leen El Hadj Abdou Aziz maa ngi lay ziar am mbégte ànd ak yow ni nga ko waxee rek laatu ñuy euh, sori ci waxtaan wi rek dellu jébbal suñu njaal suñu xarit suñu rak suñu naatango soxna Binta Diallo euh, suñu yaay ay bés bi ñu génn ñu ngi doon sàkku ci yéen yëpp ay ñaan borom bi jën a def li gën euh, di sàkku ci yéen it ngeen ànd ak ñun ci ñaan yooyu ngir rek fa mu tëdd tey jële euh, Adja Bale Ndaw yàlla xaariko aljana mu gënal ko fii fu mbay ko yàlla teg loxoom ci njaboot gi ñu dellu kon rek yeesal njaal gi jëmee ci Adja binte Diallo Abdoul Aziz jërëjëf El Hadj Assane am mbégte jàkkaarloog suñu mbokku téléspectateurs yi seen émission yeewu leen di nuyu oustaz Pape Anne soxna si ngay présenté journal bi di ko ziar bu baax a baax. Mhm. El Hadj ni nga ko waxee nit bu ngeen di ànd da ngeen di ànd bokk ci lépp bokk bànneex bokk bokk naqar fa bërëb ba ñuy liggéeyee ñun ñëpp ñu bokk ko fii ñuy liggéeyee ku ci nekk di ci jaar ay ay. ay ay waxtu yoo xam yi nga koy def doo ko def ak sa waa kër kon lu ci jot nit rek dafay dem. Mhm. Euh, ñu dem fa lool El Hadj di ci gërëm bokk yi ñi nga xam ñoo nekk ci bopp euh, kilifa yi. ndax am euh, sa njaboot dara dal ko nga dem bokk kook moom bokk na ci liy wàññi naqar waaye lëkk na ci li tax nga wóolu ànd ak nit ki ci wàllu liggéey bi ngeen seq El Hadj Assane euh, ñëpp dem fa waa rajo bi waa télévision bi ñëpp taxawu fa mais li nga ciy gën a jàpp ci solo El assan mooy nit ki ak njabootam boo fa demee di nga xam ni Ajaratu Binte Diallo Gueye li muy wone fii. Mhm. noonu la mel ci biir këram. ay témoignage ci nit ku bëgg wéejuram ci nit mhm. koo xam ni taxawu wéejuram nit ko xam ne topp jëkkëram ba waaye bëgg dëggoo ak mbokkam mhm. defe naan loolu lu ci am solo la El Hadj Assane di ko ñaanal soxna si yàlla euh, xare ko ajana euh, way juróom wi nga bu góor wi fi nekk yàlla bàyyi ko moom bu ngëw ba ci kanam te lépp lu mu sonn ci way juram yàlla yàlla yàlla won ko ko ci wàllu bànneex ci kaw suuf di jaale waale aussi Alioune Mbaye Nder mhm. mi nga xam ni artiste la dëkk Tivaouane di sama rakk mhm. may ànd ak ay nijaayam ak ay magam di ko jaalee moo it way juróom wi génn àddina yàlla na ko dëddoo jàmm di wax rek ni àddina noonu la waaye El Hadj képp koo xam ne dangay dund day xaleet wala ngay mag. am mhm. wujur toppatoo ko ndax sakk sakkanalu doom mi nga ci toppatoo wujuram. Ah. defe naa loolu mooy njaal mi nga xam ni groupe Futurs Médias ak ñun équipe bi nga xam ni mhm. yeewu leen ñoo am euh, chance ou privilège di ànd ak Binta. Mhm. ci wàllu xam-xamam ci wàllu professionnalisme ñu koy jaal di wax nag lan fa dajaloo. ak baat yéen fa yëkkati yëpp. ànd ko ak kilifa yi yëpp kilifa ñiy liggéey fii ñi gën a naw ba ci ñi gën a kawe ñoom ñëpp ñoo ci ànd di ko jàll yaayam jooju génn àddina. jërëjëf jërëjëf El Hadj Abdou Aziz yaa Oustaz Pape maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar El Hadj di ziar bu baax a baax mu lay El Hadj Abdou Aziz euh, Adja ki ne dem maa ngi koy nuyu di ko ziar euh, ziar bu baax a baax El Hadj Mawo Cissé. ziar mboolem téléspectateur yi jàkkaarloog télévision Futurs Médias jaal bu baax a baax Adja Binta Diallo buy juróom bu tedd boobu yal na yàlla kawel aljanaam amiin yal na ko yàlla yokk yërëm ak mbooleemu néew jullit Aline Mbaye Ndeer it nu ngi koy jaal sunu wuy jur boobu yal na ko yàlla yokk yërëm moom itam ci daraja yi Sidina Muhammad maa ngi lay ziar alaaji sa nam nam la lool <laughs> waaw mais <laughs> maa la raw maa la raw yaa oustaz di rafetlu bu baax teewaay gi ndax boobu ma tëgg ci table ji ba léegi daal gis naa ni oustaz moom 6 ah, ah, h rek mu teew vraiment ñu koy rafetlu maa aussi c'est jaaxle woon na sax ci teel a ñëw gi ma ne ko oustaz xam naa daa moo ni jàng fi ci ginnaaw almadi <laughs> Fatou Kiné noo fanaanoo jàmm rek El Hadj Assane alhamdulilah euh, nuyu Euh, oustaz Pape An di nuyu euh, Pa Aziz euh, Abdou Abdou Aziz di jaale ni ko ñëpp jaale rek. Mhm. ajaratu bint Diallo ndax ñàkk na waaye dafa mel ni ñun ñëpp tamit ñoom ñoo ñun ñoo ñàkk. Euh, di ko ñaanal moom waajuram bu jigéen boobee fa mu tëdd yàlla oyofal suuf ci kawam te xaare ko ci àjjana yi gën a kawe di nuyu téléspectateurs yi amiin jërëjëf Fatou Kiné Deme la ñuy àndal ci kanam tuuti xët yu njëkk yu yéenekaay yi météo bi naka noonu ak incha allah 8 heures xibaar yu njëkk ak yeewu leen ajjuma seen télévision Futurs Médias ñu daal di def léemaay gi laata ñuy gën a yaatal émission bi léemaay gi Oustaz Assane Seck la muy waxtaanee tey bokk na ci li nga xamante ni moo lëmbee jamono ñëpp jaaxle ci sunu góor ñi sunu doom yi ak doxalin dem ba nga xamante ni dañoo jigéene loolu daal ñëpp bëgg nañ mu dakk nag wax dëgg yàlla ci moo waral boobaak léegi incha allah xam naa ni coow li mënut a dakk fi léegi ño ngi ko fay roof rek nit ñi daañu leen ko xamal ne mënuñu ne ci réew moo xam ne am penc moo xam ne dañu xëy benn bis bëgg a wëlbati toutes les valeurs sociales loolu moom du jàll Oustaz Assane Seck mbokku jullit yi mbokku téléspectateurs yi télévision Futur Média ginnaaw bi ñu santee yàlla julli salmal si ngeen ji mbindéef si yiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi am mbégte dellu si ak yéen ci léema yu bés bi fa tabaarakallahu léemaay bi tey nag ñu ngi koy fas yéene defee ci li nga xam ne mooy sifatul muslim maanaam melokaan bi nga xamante ni jullit bi war na ko am moo xam bu góor bi la moo xam bu jigéen bi la ndax yàlla subhaanahu wa taala dafa bind doomu aadama def ñii ñu nekk ay góor def ñii ñu nekk ay jigéen boo demee si suratu nisa suñu borom subhaanahu wa taala mu ngi ko fay wax yaa ayuha nnaasu ttaquu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxida wa xalaqa minha zawjaha waaye wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqu llaha alladi tasaaluuna bihi wal arxam inna allaha kaana alaykum raqiba yàlla nee na yéen nit ñi bàyyi leen xel seen borom subhaanahu wa taala mi nga xam ne moo leen bind ngeen bàyyeekoo yéen ñëpp ci benn bakkan muy suñu maam aadama alayhi salaam yàlla nee ne loolu weesoo dama bind ay góor yu bari ak ay jigéen yu bari kon yàlla suñu waxee loolu mooy ne am na loo xam ne góor moo ko moom am na loo xam ne jigéen moo ko moom waaye bu ñu demee ba société bi bu góor solo romb la nga ne jigéen la bu jigéen solo romb la nga ne góor la kon jaadu na ñu taxaw def benn taxaw seetlu waxtaan suñu biir xoolante ci ay biir yu bët te waxante dëgg ndax dëgg dafa nekk loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf ko bëgg waaye itam comportement yi ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon na wax ne al mar'u ma'a man ahabba nit ku nekk ëllëg ka nga jël def ko sa xol di ko roy di ko toppandoo ëllëg fa mu jëm rek yéen ñaar yéenay ànd kon yàlla nañu yàlla musal si roy lu bon ak roy loo xamante ni lu dul noonu la te jullit bu góor bi ak bu jigéen bi bu xësee ba dugg si lislaam dafa am loo xamante ni moomatu ko maanaam lépp lu lislaam digle daf ko war a taxawe lépp lu mu tere mu bàyyi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañu ne suñu borom subhanahu wa taala rëbb na góor goo xam ne dafay jigéen jigéen lu si comportement si waxin si colin si doxin waaye itam yàlla subhanahu wa taala rëbb na jigéen joo xam ne dafay góor góorlu si comportement si waxin si jëfin ak si doxalin kon loolu dafa nekk loo xam ne mu ngi bëgg yàq société bi muy wàllu ngóor jigéen si waxin yi si jëfin yi ci colin yi te yàlla bu ñëwee ak mbugalam du bàyyi kenn ndax waxoon na si alquran ne wattaqu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa waalamu anna allaha shadidul iqaab mooy tandaku leen fitna boo xam ne mbugal ma buy ñëw du yem sa ña ko defoon képp dong waaye képp ku nekkoon sa sëtë ba dana la laawaale te ngeen xam ne yàlla ku tar mbugal la kon yàlla ñu si yàlla musal kon loolu lañ indi woon tey ci léema yu bés bi yàlla nañu yàlla defal jégg ak topp yàlla nañu yàlla subhanahu wa taala jéggal suñu ay bàkkaar yàlla nañu yàlla subhanahu wa taala soriyal seytaane yàlla ñu yàlla subhanahu wa taala tënk ñu itam ci li nga xam ne moom mooy njub bakar balaa ñu koy fekki asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaleykum asalaam wa jërëjëf yow Saas xam naa Fatou kii ne taxawaay bi yàgg na rapidement ñu dem ci météo gi laata xëti yéenekaay yeewi la ba 8 heures. ni nga ko waxee ci météo bi la ñuy euh, jub jublu si wax nag ak euh, ndakaaru ni mu xëyee tey ji xëyee ak euh, vingt 24 degré Saint-Louis 21 degré Podor 21 degré Matam 21 degré Linguère 21 degré Diourbel 19 degré Kaolack 19 degré. Tambacounda 19 degré Ziguinchor 18 degré Kolda 17 degré Kédougou 18 degré bu ngoonee nag euh, température bi dana euh, gën a yéeg tuuti ci Ndakaaru ndax dana dem ba 29 degré Saint-Louis naka noonu 33 degré lay doon Podor 36 euh, degré Matam 37 degré Linguère 37 degré Diourbel 36 degré Kaolack 36 degré Tambacounda 35 degré Ziguinchor 33 degré Kolda 33 degré Kédougou. 32 euh, degré lu jëm nag euh, ci euh, waxtu yi ci géej gi nañ jàpp ni ndox mi nag moom wàcc na loole ci 6 heures du matin la woon bi mu tegalee juróom fukki simili ak juróom ba ca topp 19 heures lay doon bu tegalee fukki simili dana daal di géej gi ni ko waxee rek kon daal di wàcc loolee bu 12 heures jotee lay doon ba tegal fukki simili ak juróom ba ca topp 1 lay doon bu tegalee. Euh, fanweeri euh, simili lu jëm nag ci waxtu yi nga xamante ni moom moo dàq ngir suñu mbokk nappkat yi ñu dem géej jàpp nañu ko 6 heures du matin la bi mu toftalee fanweeri simili ak juróom ba ca topp 8 heures lay doon bu tegalee fanweeri simili ak juróom ngoon it bu 18 heures jotee ba tegal fukki simili ak ñaar ba ca topp 20 bu tegalee euh, fukki simili ak ñaar jant bi nag daal dinay fenk Euh, dina fenk kon ni ñu ko waxee rek daal na dina fenk ci 7 heures bu jotee ba tegal fanweeri simili ak juróom dana daal di so loolee bu 19 heures jotee lay doon ba tegal euh, ñeenti simili ajosan lii moo gën a fës ci xibaar bi teewul jërëjëf Fatou Kiné ci kanam tuuti fileeg rek ñu gën a defaru ci wàllu jumtukaay yi ñu ànd ak yow ci xët yi laata lool nga may ma jàng waxtu julli yi 6 vingt 25 la woon ngir fajar gi euh, ci wàllug tisbaar gi nag incha allah 13 heures 21 bu jotee benn waxtu yu tegal ñaar fukki minutes ak benn tàkkusaan ñeenti waxtu bu tegalee fanweeri minute ak juróom-ñett rek mun ngeen daal di taxawal timis juróom-ñaari waxtu ci ngoon bu tegalee juróom-ñetti minute gee juróom-ñetti waxtu ci ngoon bu tegalee fukki minute ak ñeent bu dee ci wàllug euh, mbokk chrétien ni cathédrale bu ndakaaru moom mees bu njëkk bi 7 la juróom-ñaari waxtu ci suba mees bu ngoon gi juróom-benni waxtu yu toftal fanweeri minute martyr de l'Ouganda juróom-benni waxtu bu tegalee fanweeri minute mooy mees bu njëkk bi meesam ngoon gi juróom-benni waxtu ci ngoon bu tegalee fanweeri minute ci Saint Joseph juróom benn di waxtu bu tegalee fanweeri minute mooy mees bi foofu euh, ci ci ñoom. ñu daal di wéy ba tey ak seen émission yeewu leen Abdoul Aziz fii leeg ki Kiné di noppi ci wàllu xëti yéenekaay yi ngir mën ko wan mbokk yi seetaan ñu ànd ak moom ñu jàngat tuuti euh, xutba bi nga xamante ni tey Oustaz euh, Assane Seck moom la xëyee léemaay gi ci wàllu gune yi ak euh, doxalin naka lañ mën a interpeller état bi naam waaye parent yi parce que defe naa ne ku ci ne ci cellule familiale nga jógee laata ñuy daje ci penc mi parent yi surtout lay way jur laa ñu def xool jox seen wareef ñoom it El Hadj ndax euh, xam nga ni euh, nit bu jógee xëyul xëy rek tàbbi ci mbedd mi wala nekk ci penc mi ci kër la mm. jógee kon am na lu war way jur yi ci biir kër gi way jur yi ci biir kër gi mooy nekkin wi ci biir kër gi El Hadj bari na yu bari yuy am ci biir kër nekkin wi ci biir kër ga mooy sabab ba xam nga ni wax nga lislaam dafa wax ni Pape xam naa ne dina ci egsi bu ci kanamee xale bu góor bu feree rek nan ko tàggale ak yaayam waratula fanaan ak moom kon am na loo xam ni ca njëlbéen ga war nañ ko mën a jël ci ay disposition ay matuwaay yu nu war a jël ci biir kër gi ba ku góor ki tàmm-tàmm yi muy def muy tàmm-tàmm yëf ku góor beneen bi gis xam nga ni lël bokkoon na ci li daan yar nit mhm. daan tàggat xale bu góor ci mu nekk waxambaane xam moom lan mooy taxawaayam ci dëkk xam nga loolu bu amatul aussi. dafay mm. am solo beneen bi ci waxtaan yi daan am ci biir kër ak li ci daan joué yëpp amatul mais El Hadj am na olof yi nee na nu wañ gaa nga bañ a ca mbànjaxaan ga El Hadj nan ngay mën a amee nekk sa doom mu nekk ci biir kër gi di lëttu di xale bu góor. Mm. di léttu da koy gis ci yi xale yu góor yu football di léttu xale yu góor yu takk ay jaaro. Mm-hmm. xale yu góor yi dinañ sol léeg-léeg sax ñu tol léeg-léeg nga gis sax xale bu góor bu takk ay fer yi xale yu jigéen yi di takk. yooyu yëpp ñu ngi ko teg ci ay vies ak ay dama ko bëgg ak dafa changé te yooyu yëpp buñ ko defee da ngay gis ñi leen ciy toppandoo footballkat yeeg ñëpp ñuy def képp ku góor kuy léttu defoo loola war parce que góor du léttu am na ci askan yoo xam ni dinañ la létt mais ci benn tranche la yem boo tollee ci waxambaane war a dugg ci néeg am na ci askan yoo xam ni ay ay ay yoo xam ne boo fa demee dañ leen di létt mais loolu ca la yem période la boo xam ni day wane transition bi am ci diggante fi mu toll ak fi mu dugg beneen bi ci des takk jaaroo rafetul ci góor benn yoon buñ la ko boo ko defee ñu la góor jigéen nga te buñ la ko waxee nga bañ waroo ko woon def mais ñuy si ba foo xam ne El Hadj mhm. état mag waxuma la góor mais état daf ci am responsabilité mhm. responsabilité état mooy El Hadj ñaata yoon nga dégg góor jigéen bu dem mag mhm. ñaata yoon ay góor jigéen yu daan dem màkk ñu xam ne ay góor jigéen lañu mosuñu ci jël benn disposition te loolu l'islam daf ko dàq. am na ci respect jeeg ji fi nekkoon ju mag ji fi nekkoon ñëpp ku ci ne amoon nga sa góor jigéen boo xam booy dem ci xew moo la daan joxalanteel nit ñi di ko fekke te loolu kenn mosu ci wax. yooyu mooy indi yi beneen bi ci des mooy góor jigéen yi nekk ci gox yi ñu leen di xam kenn mosu ci jël benn disposition wala nii ñu ko taxawee tey bëgg koo faj. bëgg ko faje noonu kenn mus ko cee jël. kon bu ñu demee ba nit ñi làgg ci parce que dañu làgg ci mbon bon El Hadj Assane mhm. bi àgg na foo xam ni mbon bon def ko moo ëpp solo def lu baax. Mhm. dem nañ ba kuy def lu baax sax dañ naan la dof nga. Mhm. wala kongaak ragal laak fekk yooyu. te nit ñi ko bàyyi ñoo ko bàyyi. léttu ci xale bu góor woddu xale bu góor boo gis grand bu jigéen lay sol. yooyu yëpp ay fee la yuy am. ay couleur yoo xam ni góor daaw ko sol. nga di ko sol di ràjj ràjj. lu ne dugg ci xewoo dem jël. pecc mu bari mii mhm. El Hadj xoolal mhm. liy fecc ci ay xale yu góor mhm. am na benn baat bu euh, Boubacar Diallo di wax maa ngi koy nuyu di ko félicité El Hadj Assane nit dina wax dara nit rek ko fekk cax ba ca biir wax jël la nit ñi déggul ee eh, xale yu góor yi bàyyi leen ji may leen jigéen ñu ñu fecc ci Dakar na door pa dem na ba wax loolu ee eh, may leen jigéen ñu ñu fecc ñuy soli caaya rëdd seeni bopp musóoru littu léeg-léeg nga gis koo xam karaw ga day jóg ba ca kaw mu crème toccomiku ba leer nañ ku ko def yaa ngi ci affaire góor jigéen <laughs> El Hadj Assane xeesal góor du xees il faut que ñu wax dëgg El Hadj mm-hmm. Mm-hmm. Ah, xale bu góor say moustache ñuul ngay wuli di nuyoog di lebax di kook lu ne mm-hmm. sa nga gis say te ponkal mu góor muy xeesal ay baaraama koy njëkk a wareen day xeesal ak moustache <laughs> mais El Hadj Assane nanu arrêté yi quand même jërëjëf yow saas ci ci wàllu li nga xamante ne mooy diine ji rek euh, ndax euh, du ñu tàyyi foofu également je pense que ni euh, loolu lépp mooy lool rek boo yarul sa njaboot aussi jinne yi doon seen kilifa rek waaw je pense ñaan ko amul kilifa jinne yi doon sa kilifa loolu moom moo feeñ ci suñu xale yu ndaw yi. jërëjëf El Hadj Assane euh, comme ni ko El euh, Hadj Abdoul Aziz waxee léegi gis nga lislaam hmm. ci fulla la mësi dox. te it olof mooy wax ni lii raam. Hmm. mu ne ci ñàkk bi la jëm. dëgg la. yàlla dafa waxoon Seydina Muhammad ni ko. sallallahu alayhi wa sallam jugal nga dem xeex ak yéefar yi. ak naafiq yi ak ñi bëgg a yàq àdduna boo jugul rek àdduna bi def dina yàqu xoola ki nga xam ne lu yàlla bind moom hmm. gën a nekk kilifa ñëpp. gën a doon gor ñëpp ëpp daraja ñëpp ci boobu jamono mu nekk général moom rasulullah yi ànd ak saxaaba yi pour dem xeexi pour nu mbon yàqoo ci àdduna yaa ayyuhan nabiyyu jaahidul kufaara wal munaafiqiina la yàlla waxoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam te bi yonent bi demee dañu ne al ulamaau warasatul anbiyaa yi boroom xam-xam yi ñoo fi wuutu yonent yi waa léegi nag jamono bii ñu toll alaajasan réew moo xam ni quatre-vingt-quinze pour cent yëpp ay jullit lañu réew mi bëgg a yàqu njaboot gépp ko am njaboot tey tiit nga tiit nga nga tiit yaa ngay ragal ñu yàq sa njaboot mhm. waaye kenn jugul kenn waxul mhm. jamono baa ngi yàqu réew maa ngi yàqu njaboot yépp tiit nanu waaye Alaaji Asan gisaguma benn kilifa mhm. gu waaxu ba ci benn télévision toog ñu dékk ko micro wax ak askan def déclaration def déclaration mm-hmm. wax ak njaboot gi dem ba ca président de la république toog ak moom mm-hmm. ne ko réew mii kat bu ñu jugul dana yàqu mm-hmm. olof nag mooy wax ni luy raam ca ñag ba la jëm dëgg la te yàlla bi mu nuy bind ñu pour fo yàlla ni sibina Muhammad waxal gaa ñi nii ndax dañu njortu ne man yàlla dama am jot nii rek bind leen nii rek pour fo afa xasibtum annama xalaqnaakum abathan wax leen ni dama leen bind pour ñu jaamu ma te yonent bi daan wax ni laa dadda min nii wala ana min dadi mooy du ma mbóorantu mooy fo taman si jona Muhammad bëgguma koy fo mm-hmm. te réew mi fii nu toll nag Alaaji Asan yàqu na yàqu goo xam ni mm-hmm. kuy gor di jullit sa xel dalatul ndax yaa ngay ragal ku yàq sa njaboot jërëjëf jërëjëf yaa saa jërëjëf Hadj Abdou Aziz ñu ñëw ci xëti yéenekaay yi Fatou ne tàmbali ko ak observateur tàmbali ko ak euh, l'observateur ni nga ko waxee la Jassane ak ki nga xamante ne nag def nañu ci euh, na muy jafe waa ji nag turam Amadou Sada Kala ab tueur la bu ñu ko déggee faatkatu bakkan orphelin maanaam ñàkk na waaye juróom bi jigéen loolee ci bu mu nekkee tout tànk moom Amadou euh, Sada Kala ni ko yéenekaay bi fësalee ne nañ nag cousinam la daal di faat jaasi la ko gor Euh, yemu ca nag ndax dafa daal di rek euh, dagg awraam muy awra ku jigéen ka ak teg ca weenu euh, càmmoñ bi yàlla nañ ci yàlla musal ci prison moom li liñ ci wax nag nee nañ ba mu fa nekk itam jekki se rek dem ci toilette yi daal di nag dagg moom it awraam nee na nag li ko ci xiirtal moom xamu ko ñu daal di yegg si si mhm. yéenekaay bi di Grand Place Grand Place nag di wax nag fi ni ne nii sa sekk ni nga xamante ni noonu la taxawee ndax gis nañ ko fan yépp ci banlieue bi mu mel ni nag moom ma ngay waajal bu baax a baax woteeg faluk njiitu euh, réew mi Macky Sall it euh, demul euh, kenn demul mu des ndax moom it ma ngay def booram na mu mënee ca banlieue bi ni ñu ko waxee rek réew mi moom dafa lànk ne daf fay teg tànkam kenn du ko ko yóbbul premier ministre nag moom dafa jàpp ne atum 2016 dana nekk at moo xamante ne atum xëy lay doon ñu yegg si si beneen yéenekaay muy libération. wax nag ci wàllu guerre bi nga xamante ni euh, wax nañu ko ci I2AF lu toll ci euh, fukki million ak euh, juróom-ñeent ci dollar moom la ñu ne nag la ñuy seet fi mu nekk nii Massata Diack Habib Cissé ak protocole bu Moscou. ñooñee ñëpp nag ñu tudd leen ci avocat yu kii nag Lamine Diack mi nga xamante ni moom moo nekkoon jiital I2AF fi mu ne nii nag ña nga teg gët parquet financier bi. ñu yegg si si beneen yéenekaay muy le quotidien le quotidien nag wax euh, ca euh, la xew démb ca pencum ndawi réew mi euh, dafa mel ni nag pencum powukaay la nekkoon waaye du doon pencum ndawi réew mi ndax lañu fa gis ku jég politique gi ñoom wanete nañu seen bopp foofe amat Suzanne Camara moom Tifaari Saaga la fa nekkee woon mm-hmm. Amadou Ba nag moom daal di weddi syndicaliste yi ci mbirum fiscalité yi ñu doon wax ak li nga xamante ne wax nañu ko ci ci wàllu jafe-jafe ñu yegg si si beneen yéenekaay muy le populaire le populaire nag wax euh, ci gouvernement bi démb taxawaayam ci pencum ndawi réew mi ku jég politique gi euh, yóbbu woon fa ay morso yu xonk ngir nag euh, lëmbe saal ba mujjantal ga sax dañoo gedd ku jekk politique gi Aïda Mbodj nag moom ci yéenekaay bi di Le Populaire ni ko gisee muy wax nag ne moom premier ministre bi daal daruloon sax muy déglu li ko député yi di wax Moustapha Niass nag moom jàpp ni Euh, comportement yooyu daal dëppawul ak yoon waaye nañu jàpp ni du benn yoon bu ñu mën a perturber assemblée nationale Mohamed Boun Abdallah Dionne nag ne gouvernement bu Sénégal wax dëgg daal mérité wul euh, lu ni mel. ñu yegsi si beneen yéenekaay muy le témoin le témoin nag daal di wax moom it euh, ci la xew démb ca pencum ndawi réew mi ak député yi nga xamante ni ñoom wanete nañu seen bopp foofu premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. àdduna ci mbirum euh, IAAF affaire IAAF nee na nag euh, du ñu nangu benn yoon di jël euh, sunu doomu réew di ko yóbbu bitim réew ngir nag ñu àtte ko. ñu daal di yegg si si direct info direct info nag moom it xëy ca assemblée nationale ak la fa xewoon niki démb. Euh, kàddu yi nag euh, ñu fësal ko ci direct info le peuple souffre de ses députés la ñu wax mu mel ni askan bi Sénégal fi ne dañoo ñàkk député ndax député yi nañ leen war a taxawee ci assemblée nationale euh, defuñu ko sàmmuñu benn yoon suñu gouvernement bi ak démocratie bi loolee nag di kàddu yu tukkee ci njiitu jëwriñi Boun Mohamed Boun Abdallah Dionne kii nag ñu wane nataalam muy président Lamine Gueye nee na lam fi bàyyi woon ci ndono dafa mel ni nag dañ koo caxat caxatee ñuy wax sax ne fa mu tëdd ma ngay yëngatu ndax la xew démb ca assemblée nationale. ñu yegg si ci réew mi euh, quotidien moom it euh, xëy ci assemblée nationale assemblée nationale ak la fa xew ni ki démb Massata Diack euh, duñu ko yóbbu benn yoon biti réew di kàddu yu tukkee ci njiitu jëwriñ ni Mohamed Boun Abdallah Dionne nee na doomi Sénégal duñu ko yóbbu biti réew ngir ñu di ko fa àtte ñu daal di yegg si si beneen yéenekaay muy la tribune la tribune nag addu Euh, ci li nga xamante ne rek euh, gis nañu ko ak Idrissa Seck fi mu nekk nii ni muy wane boppam ca banlieue ba mag it ne euh, du ko ko yóbbul benn yoon ndax moom it ma ngay def kéemtalaay kàttanam ca boroom ñu yegg si ci Zoom info Zoom info nag moom. daal di àddu nag eh, ci jafe-jafey koom yi nga xamante ni nii nemmeeku nañu ko Dakar waaye nag eh, fi mu ne nii nee nañ daal cere fonde fonde spaghetti spaghetti bokk na ci li dundee kon <laughs> loolu yàgg na Dakar de yàgg na Dakar de xanaa nekk ko fuur étudiant cere fonde moom ci mbedd yi ah cere fonde yàgg na jéegi léegi la a jar <laughs> daa gën a jar <laughs> ah dañ koo ñàkkal fayda waaye fonde baax na de fonde waaw dafa riche sax dafa riche mais xam nga fii rek sagu gi boo newul rek ginaar wala ndawal laa reere ñi daal di koy jeexalee ak euh, stade euh, stade nag daal di àddu nag ci ñi nga xamante ne nii muy stade euh, wax ci wàllu tàggat yaram les grands rendez-vous des lions ci atum 2016 atum 2016 daal jàpp nañ ne at la moo xamante ne nii suñu gaynde yi dinañ ci am ay jongante yu bari El Hadj fii la ñuy mm-hmm. ndar keppee yéenekaay yi ak la ñu xëyee tey jii ñu ngi lay gërëm Fatou Kiné Deme incha allah 8h dinañ àndaat ak yow ci xibaaruk yi gën a yaatu. di rafet rafetlu it euh, taxawaay gouvernement beeg premier ministre ci mbiri euh, Massata Diack moo def deful yoon moo koy wax waaye wàllu extradition moom foog naa ne fu laay jaay Dakar. waa France yooyu wax seen doom du ñu ko extradé euh, yaa ngi fàttalikuy jamono Tchad bi ñu fi jàppee ñenn ci wàllu arcs yooyu nga gis euh, dafa naa kii la woon Sarkozy. Sarkozy way jël avion ñëw dugal leen ca delloo. nit wax dëgg yàlla mën nga ñàkk tere terewut am fulla Afrique bu ñu nangooy extradition yooyu maintenant suñu justice Sénégal xëy na moom it am nañu moyen ak jumtukaay xam-xam bi euh, bu ko defee ñu wéyal liggéey bi ndax waa tugal yooyu foog naa ne bu ñu leen toppee ci seen financement yi léegi ñu yàpp Eh, am na yenn financement yoo xam ne dee xiif sax ku gën ndax ndax dañ lay ngàcc sa dignité ba nga jeex ah n'est-ce mais le Hadj Assane la la Ahmed Sékou Touré ñëw waxoon ñëw na hmm. je préfère euh, la dignité hmm. à l'esclavage dans hmm. l'opulence bon loolu yëpp li ñuy indi rek El Hadj mooy nit day fonk askanam ba fonkees askan danga leen di protéger da leen di fekk ba xam ni kenn du leen jaar jaal parce que ñooñu ak nit ki lu mën a def mën a def am nañu ay ñu ko mën a àtte fii mu nekk ci réew mi muy doomi réew mi ak lu mu mën a doon mas na fee nekk dara ak lu mu mën a doon it nanu fexe ba buñ ko dee atte atte ko fii mais jël ko takk yóbbu nun ko def yawal te loolu jaaduwul bu njëkk loolu daal lii ñu def nii hmm. El Hadj man ànd naa ci ak ñoom encouragé leen ci hmm. war def lu ci war am que doomi réew mi la nan ko sàng sutura fekk ko ànd ak moom hmm. parce que nit boo dee liggéey ci sa réew la ca la fekk waa réew ma dana ci ànd jàppale la ca waaye jox la ba pare lu ma neex def la bañ nga nangu def ba te te wéy ca sa ndóol sax ko gën El Hadj Assane moom bu fi leneen <laughs> Alfi dama doon xaar bu pare installation yi ma soog ko nuyu soxna Alfi ñu ngi lay nuyu bu baax di yow nag xam nga sama jigéen nga mënuma la def ni may def papaan waaye tardé gi moom duñu ko nangu ndax man sànq laa fi jóge ci li ci penc gi terewul 6 heures maa ngi fi. kon bëgg naa daal waaw. sëñ sëñ bi di régler réveil bi di la teel yee. <laughs> maa ngi lay nuyu baax Alfi. maa ngi lay fay tonton di nuyu Oustaz. Uh-huh. ak euh, tonton Aziz. Uh-huh. donc di nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp. Euh, di jégalu ci ci tarde bi. Uh-huh. Euh, bagage yee bëri rek. <laughs> dëgg la dëgg la. <laughs> ma ne ko bagage yee bëri rek. tey moom lan nga ñu bëgg a baaxee rek tey. waa tey moom dañuy dem seeti waa cuisine rapide. fas yéene defar ay sandwich yoo xam ne dañ koy saaf maanaam des sandwich frits. ok donc mu nekk bokk ci gàmmu cuisine rapide yoo xamante ni kenn amatul jot. Mhm. Euh, yu ay recettes yu neex la. yoo xamante ni yomb na defar ba pare gaaw na defar. dëgg la ba pare c'est c'est vitaminé parce que am na yàpp ci biir. Mhm. am nañu ay fromage ci biir ak mhm. euh, yenn saf-safal yi. ak beurre sofia mi nga xam du la sori moom. waaw beurre sofia moom du ci ñàkk <laughs> chaque jour day ñëw. très bien merci Afi à tout à l'heure Alfi euh, xutba bis bi Maodo Cissé imam Ismaïla Dem ñu daal di lu moom it mu daal di def yóbbalam. Euh, imam Ismaël Dem bu Cité Faysal ñu koy ziar mu ngi njabootam yëpp li muy waxtaan nag ak oustaz Assane sekk mooy wàllu dëgg nit ki dafa war a dëggu jullit bi nag rawatina ñu ñu teewlu waxtaan wi. aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ci bés bu tedd bi di leen ziara di leen baalu àq. li ñuy waxtaane tey li ko li ko mun a. taxawal mooy saar bi nga xam ne ci lay yàlla di wax tabaraka wa taala audu billahi min alsheitan irrajim wal asri inna al insana la fi xusr illa alladina amanu wa amilu lsalihati wa tawasaw bilxaqi wa tawasaw bilsabr wa tawasaw bil bilxaqi wa tawasaw bilsabri gis nga société bu amul ñaari yi alxaq bu fi amul ak sabr du taxaw société boo xam ne dañuy maslaa ci fen ak ci lu dul loolu société boo xam ne kenn du yëkkati sa baat baat wax dëgg kenn du nangu dëgg xam nañ ne kenn dootul nangu dëgg moo tax baatu dëgg dootul jub ci société boobu wata waasaw bil xaqi loolu la yàlla wax ngeen di déggante dëgg fekkee ne yow yaa am dëgg ñu la ah Assane moo am dëgg de pour fekkee ne amul Assane amul dëgg ñu ko ah Assane li nga def du noonu de nii nga waroon def di nga waroon def Assane nag nangu loolu waaye bu ñu wax Assane rek ngi si boppam jullit day nangu dëgg wa tawaasaw dañuy dénkante tawaasaw ku nekk da ngay dégg boo nekkee ci dëgg ñu ne ñu dëgëral la boo nekkee ci lu dul dëgg ñu ñu ñu ñu wax la avertir la nga bàyyi ko mais nag nga bàyyi ko avec modestie nga accepté ko nga nangu ko waaye jullit du rëy wata waasaw bil xaq koo gis koo gis mu nangu dëgg rek réyul te yooyu yëpp ay musib la yoo xam ne bu dalee société société ba du du am jàmm yàlla na ci àllum sol wata waasaw bil xaq yi wata waasaw bis sabri sabr gis nga xàq nag mun nañ ci lu bari xam nga lan mooy dëgg waaye la dëgg wata waasaw bil xaq dëgg mooy li neex yàlla dëgg mooy yàlla parce que moom moom dëgg huwal xaqu képp kuy doxal dëgg tam yaa ngi defal def lu neex yàlla jaam nga te jaam jaam rek lay mën a doon kon nag muñ rafet na ci lu ne ci lu ne la rafet rawatina ci ci kilifa rawatina ci kilifa kilifa de bu mu rek àddina tukki bu ñu rek réew mi toj bilaay kilifa rek moo war a muñ kilifa nag mu tàmbalee kilifa ci sa kër da ngay muñ boo muñul sa njaboot àddina tukki kilifa ci da nga am bi boo muñul bureau bi tas kilifa ci réew mi bu kilifa réew yi waxoon li ñuy daj tey ak li ñuy dëgg ak li ñu leen di wax bu ñu muñul àddina tukki noonu la yëpp mel allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi jërëjëf euh, imam Ismaël dem ñu koy ziar bu baax euh, di rafetlu waxtaan wi ci dëggu gii rawatina yombul nag de yaw saas dëggu xam nga nit ñi moom léeg-léeg euh, lu ñu jiital rek mooy nu lay naxee ba am say poos waaw mu ngi noonu ñàkk dëggu nag xam nga nit ku gëmul boppam mooy kii ñàkk dëggu mm-hmm. te yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na nit boo xamee sa bopp rek xam yàlla man arafa nafsahu arafa rabbahu nee na bu xamee boppam xam yàlla ki dëgguwul nag alaaji ba yàlla dañu artu ci dëggu bis bu ne yàlla di nuy wax nañuy wax dëgg bis bu nekk yàlla di wax lu tax ngeen di wax lu ngeen dul def di di mel ko ci xuloog doomu aadama yi lu tax ngeen di wax lu ngeen dul def li ma taquluna maa la tafaaluna mooy lu tax ngeen di wax lu ngeen dul def lu tax ngeen di wax lu ngeen dul def hmm. ñàkk dëgg googu alaaji mooy ñàkk gëm sa bopp hmm. ñàkk moo tax moo tax imaam li wax na ko léegi ñu ngi koy nuy baax di ko ziyaar mm-hmm. mooy la yàlla wax ne dee leen dinkaan dégg dee leen euh, di jokkalante di waxante mm-hmm. dëgg waaw mm-hmm. watawaaso bi xaqi waaye watawaaso bi sabri li may wax toujours danger bi oustaz mooy boo dul wax dëgg wax dëgg dina jot nga wax kenn du la gëm waaw c'est dangereux nit boo demee bay wax kenn du la gëm wala bala ngaa bala ñu laa gëm nga waat façon waat bu ne billaahi mhm. wallaahi <laughs> tallaahi ma barke alxuraanul karim mhm. barke seydina muhammad wala nga xool sa sëriñ fu façon waat bu ne nga wax ko pour ñu gëm la booy boo nga dem seetaat sa bopp seetaat sa dëgg la jërëjëf ànd El Hadj euh, waxoon naa la fii keroog ni la nit tribunal la mhm. xel moo lay àtte bis bu ne nga wax dara loo xam ni sa conscience danaa la yow li nga wax du dëgg ñu jugé la El Hadj gis nga réew mi li mu yaatu yaatu yaatu boo dee fenkat xat <laughs> li mu yaatu yaatu boo dee fenkat xat ndax doo dugg ci benn gox wala nga toog fenn foo xam ne yaakaaru ko la fa fekk parce que wax nga lu ñu dëgg. Mm-hmm. beneen bi ci des li gën a dangereux El Hadj mooy dafa mel ni ñëpp léegi fenn du problème dafa mel ni léegi wax lu dul dëgg du problème. Mm-hmm. et puis borom kër yi ñu ngi ciy làggiloo seen waa kër. Mm-hmm. El keroog wax nga ni. toog fii ñun la aloo nga ni way foo nekk nga ni maa ngi Tivaouane fekk yaa ngi dakaar <laughs> non non loolu ko loolu lu ko gën a euh, bon lu ko yoonu mais nekk ci kër nga ni ku fi ku la commencé ne ko néewuma fi mais loolu ñàkk wax dëgg ak ñàkk wóolu sa bopp ci la bokk te El Hadj Assane ñàkk wax dëgg koo gis juba dee ko lal dëgg la jubadi moo ko lal ndax toog ak nit wax loo xam ni li ngay wax dara du ci dëgg mu dem ba léegi ñoom mënatunoo sax gëm kuy wax dëgg ku dul wax dëgg li ci gën a wéet nag mooy kilifa guy wax gudul wax dëgg boroom daraja juy wax ju dul wax dëgg mhm. moytu ko ndax lu mën na laa dugal ci lu ne ñàkk wax dëgg baaxul ci gone baaxul ci mag ci mag nag la gën a yées ci gune ndax gune sax mën nañ koo jubbanti waaye mag mu làgg ci wax lu du dëgg moom sonn na Alaaji sunu sëriñ sii xalif généraux yi sonn nanu ci ñi leen di du wax dëgg autorité politique yi duñ wax dëgg te Alaaji benn baat laa dégg sànq bi may ñëw di liggéey si ci journal bi benn om politique du ma tudd turam daf ni yooyu gars yi ñu waxee waxu politique la waxu politique moom la wax kon bu ñu demee politicien di wax di waxu politique ba jaarooy politique amee la ñàkk wax lu bon am. jaarooy politique moom mooy jaay yu lay jaar yoo xam ne. bu naaj yu tàngee mu furi. <laughs> ñu ne jaarooy politique koy jaay danaan la or la karaame quatre-vingt kara vingt quatre kara te duñ wax dëgg. <laughs> ko wax dëgg wax ba pare nag kenn gëmu ah. dee dem sëgee sax a ko gën. dëgg la maintenant bàyyi xel également ñi nga xam ne ña nga ca biir cay wax dëgg xam nga li ma koy wax souvent lu bon a bon xam ne lu mu dugg rek yàq waaw fii moom mën na la stratégie mën na la kàcc amal xaalis mais wax ko tu dëgg yi am véritable programme gëm ko nag ba pare nekk ca constance ñu ngi fi également ci arène politique bi. mën naa laa wax kenn nit koo am ne wax bokk sa réew moom sa réew. gëm sa réew. Uh-huh. kooku ñaata yoon la ko wax. mais doom mbooloo sax nit ñi dañ koy ree bu gën waaye bokk sa réew ñëw na déglu ko. Hmm. ci mag muy toog naan bokk sa réew moom sa réew. fekk la muy wax gëm gëm ko gëm. Hmm. moo tax mu man a jël slogan boobu. dëgg la beneen bi ci El Hadj Assane li gën a bon donc gi dégg wax ko. Hmm. mooy ni suuf lan toll. kenn du leen wone nit ku dee wax dëgg sax. boo dee wax katu dëgg sax. ñu waaye dafa waaye dafa lakkale. xool bee tàng daam ku mere. foog ñu jiñ la koo mere. dëgg la Pape Andé tey daa mere nit boo demee moom lay waxtaanee boo demee moom fekk ma wax dëgg ngay wax. Uh-huh. boo dee wax dëgg sax ñu wutal la foo féeteeg. Uh-huh. koo mere koo contre ñi nekk ci télévision yi di ci wax nag uh-huh. ñoo ci gën a sonn. loolu ñu ne waaye moom moom daa contre di boo gisee gisoo ko mooy mooy wu fekk loolu amul li am mooy. nanu teg nit ñi ñun ñi nga xam ne ñooy nekk télévision yi wax. Mm. nanu fexe ba bu nu génnee nuru li ñuy wax. aussi ça c' est aussi c' est important El Hadj Assane. c' important c' important. en tout cas euh, li ma ko waxee bataille psychologique la aussi parce que ñun ci tontu indil agression yi ci àddina. tontu yi ñu koy indi lañu war a xoolaat façon tontu wi nii sa à dire wax naa ko sànq ci wàllu terrorisme bi ci li ci penc mi buñ ne yéen ustaas yi wala yéen euh, lislaam gi ay defkatu na ngeen rek ñu daw commencé di di di di dindi tuuma alors que dañ leen war a tontoo neneen ci sunuy école sunu yaru doom suñuy doxalin suñu colin n'est-ce pas Oustaz il faut que euh, tontuwin wi tontuwin wi ak façon euh, doxalin bi xam nga mm-hmm. xam nga Alaaji Asan ñun ki nu yàlla royloo mooy rasulullah yi moo gën a bëgg jàmm ñëpp waaye gën a comprendre àdduna ñëpp mhm. xam xam doxalin moom yonent bi alayhi salatu wasalaam waaye jamono bi li ko yàq asan alaaji asan lépp rek lépp ci éducation bi la gis nga xel loo ca sax am na ci ñoo xam ni jël nañ leen tëj leen fenn di dugal ci seen xel loo xam ni gëmatuñu bëggatuñu lu dul dee lépp ci éducation bi la am na ci ñoo xam ni mënatuñu baax am na ñoo xam ne mënatuñu mën a wax dëgg mënatuñ ko sax parce que seeni wuy jur da ngay gis mag moo xam ne day toog ci ay biiri doomam di wax lu dul dëgg ay doomam xam ne seen papa li muy wax du dëgg wala seen yaay li muy wax du dëgg njaboot googu bu ñu màggaalee loolu mënatuñu wax dëgg uh-huh. mënatuñu nekk ci lu baax am na ñoo xam dañuy gis seeni wuy jur di def lu bon ñooñu bu ñu ko màggaalee mënatuñu def lu baax lépp ca cosaan la la hmm. éducation ba la hmm. wuy jur bu wuy jur rasulaay dañu ko indil moom waa ji am doom mu am ñaari at mu indil ko yonent bi nabi ne ko yar weesu na ci moom ñetteel ba xale bi judd rek Mustafa indil ko waa ji indil ko rasulullah yi bi ne ko yar weesu na ci moom mu ne ko waaw kañ la yar di tàmbali mu ne ko boo koy seetal buy jubbu jigéen am na loo xam ne ci éducation bala àla jasal nit war na tànnal war na tànn soxna soo xam ni boo ci amee ay njaboot tàggat say njaboot yow ci sa bopp yow way jur mhm. war nga dënku yow way jur war nga nekk ci lu baax mhm. yow way jur war ngay def lu baax ba say njaboot di ko royee ci yow màggaale ko ndax xale lu mu màggaale rek mooy nekk ci mooy nekk ci boppam mooy nekk ci xelam te xel mooy magasin ràññetle mhm. al aql huwa markazu tamyiz alajas jërëjëf Oustaz jërëjëf euh, ñu daal di ànd ak euh, Idrissa Sané bu observateur daal di ñu càmbaral rek euh, xët bu njëkk bi la lune la une de l'Obs Idrissa jërëjëf Alaaji Assane mbokki téléspectateurs yi ak mbokki lecteur l'observateur dalee nag jàmm fii si rédaction centrale bi tey nag euh, l'observateur mi ngi xëyee comme ni ngeen ko gisee si xët bu njëkk bi ci nataalu benn euh, waay muy ab raykat bu doy waar mi ñu doon jugé démb ci chambre criminelle bu tribunal bu Louga moom waa ji mi ngi tudd Amadou Sada Ka am euh, fanweer ak juróomi at sa 2009 ci lañ ko tëjoon kaso gannaaw ba mu reyee benn doomu bàjjanam ci reyin bu doy waar dafa daggate ay weenu ndaw si ak i cëram ba noppi soog ko rey ci lañ ko tëjee ca prison bi waaye lu gën a doy waar mooy ci biir prison bi moom waa ji ba mu jotee ak euh, beneen waaye ci la mer ba fut daal di dugg ci wanag ya dagg ay cëri boppam ba ñu noppee ci loolu ci lañ ko indi ci euh, pavillon spécial bu euh, l'hôpital Dantec ca fii ci Dakar ñu defal foo ñu greffel ko euh, yeneeni cër moom waa jooju nag moo doon taxaw dem ba ci kanamu tribunal bu Louga bi waaye biñ ko laajee dafa xam le rek ni moom la muy def yëpp yëgul ci dara ndax du ànd ak sagom ba tax na tribunal bi dàq na àtte bi ba beneen yoon le temps que ñu xam exactement la moo dal waa ji ba ñu noppee ci loolu ci lañ dem ci assemblée national euh, muy pencum ndaw réew mi euh, muy pëccëxoo gu metti gu fa amoon euh, démb coow li nag mu ngi meloon ni Tulle ak Malle député yu fare ci xuja gi nag ñoom ñoo doon wane seen bopp maître El Hadj Diouf Aïda Mbodj ak kii Thierno Bocoum ñoom nag ay fulaar yu rouge la ñu indaale foofu ca l'Assemblée nationale bi nga xamante ni première ministre bi moo fa ñëwoon jàkkaarloog député yi ñu tàmmante dem di saagante ay tey ci kanamu premier euh, ministre bi euh, coow lu metti loolu wala bokk pëccëxoo bu metti boobu la l'observateur di nettali na mu demee ba mu tàkk leneen lu ñu xëyee itam mooy euh, voyage yu Ndour fële ca Gambie moom Youssou Ndour dafa demoon jaale ji euh, njabootu ndem si yàlla musaa Ngom nam ko diggee woon noonu la ko defee foofu ca Gambia la demoon dem euh, ba l'observateur mi dara réerut ci déplacement boobu nettali na ko ba mu jeex takk itam ci wàllu sport ñuy déggal rek ni joueur sénégalais bii di Papi Djilo Bodji mujj na dem fële ca Brême gannaaw nuñ ko wax xew woon ci fan yi passé moom euh, mi nga xam ne bañ ko jëndee ca Chelsea mois d'août bale passé ba léegi nii mënagul euh, football foofu ca Chelsea ba tax na dañ ko mujj abale beneen club bu allemand foofu ca Werder Bremen ngir rek mu mën fa tàggat boppam ngir rek mu mën fa jeexal euh, saison 2016 bi kon nag loolooy moo nekkoon ci tënk xibaar yi ngeen mën a lire ci l'observateur u àjjuma ji am na yeneen i xibaar itam waaye lii moo nekkoon ci tënk jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi ak i lecteurs yi l'observateur yi di leen jaajëfee ci teewlu bi Idrissa Sadé ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm mbooloom waa observateur yëpp commencé ko ci El Hadj Alioune Badara Fall ak toute l'équipe de l'observateur euh, di jàmbaar lool euh, jiitu ci ay euh, nawleem rajo bi noonu télévision bi noonu macha allah <laughs> yaa ñu ñëw ci euh, presse bi bokk na ci assemblée nationale xam naa foofu dañ ci dañ leen di fàttali aslëf rek ndax suñuy kilifa lañu ah, euh, ñoom ñoo teewal yu ndaw réew mi euh, dañoo war warlu ak ñoom ak wekk ndax bu ñu nee ñii ñooy dànk bi nga xam ne ñoom la fi askan wi teg yow loo leen xëy na ñàkkee war ma rek ñàkk nga war ma askan wi waaye ñoom ñoo war a njëkk a wekk seen bopp nit ki bu yàlla defee nga am wërsëgu bokk ci néew limbu néew ñuy 14 millions d'habitants 13 millions et quelques yow nga bokk ci lu néew loolee da xam ne lii nag du ndaw saa Sénégal nit ñi poste yi ñu leen di teg lañu xamul xëy na valeur yi ak it di xool ña fi jaar démb yow boo dee député nga ñun la Lamine Gueye député la woon loolu nga nga sant borom bi ba pare fas yéene naa fi bàyyi nag man tamit woy woo xamante ni parce que am na député yoo xam ni waxuma la ay di leen bind ci internet ëllëg mais daañu leen fàtte de ay ay bés ginnaaw si bu ñu tekkee seen i échappe <laughs> échappe El Hadj wax nga dëgg El Hadj Assane ñetti mbir moo ci am yoo xam ne bu ci ne jar na jàngat mooy yow fii nga nekk ñi fi nekkoon mm-hmm. ni nu meloon ñaareel bi ci des mooy yow mi nga xam yàlla may na la taw féexook nga bokk ci ñi nga xam ni ñoom la réew mi ni yow yaa may waxal mais ñetteel bi ci des El san mooy réew mi ci mi la ko jox. nin la ko joxee te El Hadj boo dee euh, bu fekkee ni yow yaay représenté nit ñett daf la cee war da nga war a nekk nit ku yaru parce que Sénégal peuple bi. peuple la boo xam ni peuple diine la. Mhm. mooy ci wàllu l'islam ak ci wàllu chrétien yëpp. Mhm. peuple diine la. kon bu buñ la fa yabalee war ngaa mën a ci sa taxawaay ci sa melokaan bu xam xel ñu ni kii di moo fi taxawal pencum ndaw réew mi moo fi nekkal waar réew mi mm-hmm. El Hadj Assane nit war nay bu dul sax penc mi bu dul sax nga nekk député war ngaa sa kàddu war naa yiw kàddu gu yiw dafa baax ci doomu aadama ñetteel bi ci des mooy ñu dajale sunu baat yëpp jox la nga dem waxuloonu sunu coono waxuloonu sunu école bu yàqu waxuloonu sunu wér gu yaram waxuloonu sunu koom nga ne fa di saaga ñu santu nu kooku kenn te nit kuy saaga ci biir mbooloo ku yiwadi nga te nit ku yiwadi warul taxawal kenn fenn ñetteel bi ci des fi may jeexale pour euh, oustaz Pape Antel mooy El Hadj Assane réew mi àgg na ci foo xam ni bu mu dee boo defee ak ak ñàkk kersa ba pare bëgg ko expliquer. dangay ngay gën a énerver nit ñi. te bis bu ne ñu defu ñàkk kersa li tax ñu def lii. diwa def lii moo tax ñu def loolu xaj ma bo bo balaa xaj defee nga ne ko ma tey nga tey laa la gën bon won ni maa la gën di xaj. xajaay bari rek. te tere du faju kon fokk nit ñi indiwaat seen bopp ci liñ leen fa yóbbu. mais El Hadj Assane boo jàngul tubaab. mënoo lire texte ñu dugal lu ci liste xamoo la la fa war. lu la neex def. am na ñoo xam ñi leen fa yóbbu. am nañu problème parce que ñu leen proposé am nañu problème parce que nit ñi am confiance ñu proposé leen liste ñu leen liste bii la ñuy àndal mais list bi ñu ci biir. Mhm. ñu ne war a seetaan lay doon El Hadj Assane. bis bu ne nga ñëw nga indi ko fa mu ne tey may dépris jox ko oto ca ginnaaw ñu koy dawalal hmm. jox ko essence bu weer wi dee ñu jox ko million ak lu topp hmm. mu ñëw di wax lu ko neex hmm. ñam ñan ñi moo ñoo ko fal sax xamuleen leen du leen seet du leen dimbali mm-hmm. mais kooku kook Hadj san lu ko neex def ñoo ko fa yóbbu it am nañ ci part de responsabilité al Alfi sànq balaa may jox oustaz parce que da nga xawoon yée euh, bon ma ma bañ a insister ci ci yéex ñëw gi <laughs> mais dañ fay tudd saag yi yéen ngeen foog ni waru leen a def marche jigéen ñi parce que bu yàggee góor tumburanke de bu ñu kon ni ñuy doxale est-ce que yéen war leen a di waxtaan ak seen càmmiñ yi nag vraiment ak dal aussi sérénité bi moom parce que boo gisee souvent ma koy ma koy wootee tuuti naa ji xëy na Sénégal ñun ñëpp ne war nga woote jàmm jooju parce que lu dul jàmm moom du defar boo bëggee bëgg defaree defaree ay da ngay da ngay yokk ay wa mais doo indi jàmm donc dans la sérénité mais yéen jigéen ñi aussi ngeen taxawee noo xam ni ba du ngeen accepter xeetu góor yu ni mel. dëgg la dëgg la comme li ngay wax rek bu ñu bu ñu defee marche maanaam ku ñu gis nga yore. Hmm. saak yu mel noonu ñu dal ci sa kaw. waay parce que tam di def naka sudul noonu ñëpp bàyyi la si. yàggee dangay ngay yaakaar ni li ngay def euh, euh, loolu la. mais man li may gën a ñaax euh, parent yi mooy comme li ñuy wax mënuma wax sax ni sàggante la mais am na loo xamante ni dafay xew ci yenn quartier yoo xamante ni guddi la fi guddi lay xew mhm. sa doom tàggu la ne la maa ngi dem nuit blanche wala maa ngi dem sama xarit yi ñu nekk ci benn quartier boo xamante ni guddi gi lu leen neex la ñuy def mhm. te parents yi duñ ci rendre compte nit ñi di ko gis di romb di leen gis te kenn du ci wax mhm. autorités yi di leen gis te kenn du ci wax donc loolu su fekkee yooyu dañ koy dañ koy développé xam nañu seen am nañ seen heure yi ñuy joxe xam nañ seen rendez-vous am nañ seen ay lieux yu ñuy dem hmm. te ñëpp xam nañ ko te kenn du ci wax seetaan gi ñi ngi ñi ngi circuler ci internet bi ci facebook bi la ñuy joxantee rendez-vous ci hmm. facebook bi la ñuy xamantee nit ñi di ko gis parents yi di ko gis te kenn du wax xale yi di yor ñaar ñetti téléphone foofu la ñuy defaree seen seen seen maanaam seen dil yi ñuy def hmm. man daal je je crois que euh, mbir mi ci kër gi la maanaam xale yi ci xale yi ci xale yi la war a la war a commencer dëgg la parce que loolu développement boobu ñun mën nañu wax sax ni Euh, mag yi sunu sunu sunu jamono wees na. mais xale yu ndaw yi nii ñu doxalee. bu ñu leen mm. seetaanee. dëgg la waxuma la sàkk sax mais lu ëpp sàkk sax dina fi dina fi ñëw. dëgg dañuy sànq non c'est vrai parce que tam am na yenn sàggante ñu ngi xew fii ci réew mi. parce que parce que di na. ñu seetaan suba dinañ am lu raw lu raw sàkk wax nga dëgg. après léegi ci bu guddi jotee dañ koy mm. def ouvertement nit ñi di ci gis seen bët te kenn du ci wax. dëgg la donc loolu tam parents yi wala autorité war nañ ci jub di di xool li xale yi di def guddi. jërëjëf merci Alfie assemblée nationale sànq yaw sax ñu ngi ciy wax ci wàllu teggin gi ak ni ñu war a doonee euh, photocopie entre guillemets bu ña leen fa yebal euh, loolu tam war nañ ci gën a góorgóorlu di wax dëgg yàlla. ñoom it aussi parce que Sénégal man seetaan gi moo bari. vraiment nit du dafa da tekk wala mu jox la wekk que da nga ëpp fuleew ëppoo ko fayda yow ko yaa waroon sax def la tout ba mu bañ la gën a gore moom mel na demal toogal ma man ma toog déglu la. mais la xanaa am am xoolee assemblée boo xoolee yéen député yi ak ñiy xam boo xamee nit di nga xam ne am na ñoo <laughs> ah. la am na a doxali nit du ko doxale ala gis nga mhm. waa ji dafa dof bi mhm. ne yaa ngi dof ba léegi yow daal yëfi dof rek ngay def dof bi ne ko mais man dof laa mhm. maa ngi faju am naa sens wér mais yow mi nga xam ne dangaa dof te xamoo nga nag <laughs> doo gaaw wér gaaw wér doo na ñoo xam ne alaaji Assane bu ñu àddoo di nga xam ne yaa quelque chose am na lu xew ñii seen xel a dem beneen bi mooy yar bu newul ci nit nit da koy màggaale am na ñoo xam ne dem nañ ba am quatre-vingt-dix ans mais seen xel du soppi ko mukk am na ci ñoo xam ne nag ca jotaay ba ñàkk gis ñàkk a wekk kilifa ga fa ne moo tax ñuy defee nu leen neex ak di waxee nu leen neex réew mi nag man insha allahu taala euh, député yi di ñëw man danaa euh, am parti bu ma dem pour nekk waaw man danaa nekk candidat mhm. danaa wax ñu parce que Oustaz Alioune Sall jamono bii waroon naa nekk député. Mhm. Oustaz Dame Ndiaye. Mhm. ba bañ taxawee voté luñ leen. war a nekk nekkuñu député. mais ñoom waroon nañu nekk député di delloo si xel yi di leen indi li yàlla wax. Mhm. am na ay borom yi xam-xam yu fa ne ñoom itam maa ngi leen di dénk ñoom itam ñuy wax député yi. li yàlla wax ak li Seydina Mouhamed wax. ndax assemblée bu fekkee euh, cent 150 député la 150 148 yëpp ay julit lañu. 148 yëpp ay julit lañu ketta ki dàq jàngale yoroon état. doxal adduna bi rek réglé ko teg taabalam mooy rasulullah gi mm-hmm. ñuy jël référence ci moom waaye jamono bii ñu toll nag mm-hmm. assemblée national léegi na na nit ñi daan xaaree bu ministre daan dem pour déglu lu lu lu war a doxal réew mi mm-hmm. amatoo jot sax toog di leen seetaan wala nga leen la ca moo tax lu def sa bopp dafay malheureusement nag xëy na mun na nekk une ah. am na fa ñu bari ñoo xamante ni xamul fu ñu koy jooyee ñoom melunu noonu wanewun loolu waaye nag bu fekkee nit bokk na ca yow di doxalee noonu it benn wax dëgg yàlla donc moo tax rek di moytu bon daal dafay gaaw di tisati di di am ay njeexite di wàll di di wàll lu ne fàttali it mbokk yi fàttali sama bopp wàllu terrorisme bi ci wàllu xeexin ndax état baa ngi def li mu mën ku génn Ndakaaru tey dinga gis ne wax dëgg yàlla fu ne ay ay takk der mais nit ñi seen bopp ku ci ne takk der nga war a doon sa bopp ñu bàyyi werante yu bari ak xuloo yi ca bàyyi xel suñu bopp ñàkk bàyyi xel sa bopp mooy mooy def nga nga nga yebab terroriste ngeen nekk ci oto benn bi yóbbu ko ba mu wàcc doo xam ne kii defkat lu bon la wala terroriste dëkk sa kër ngay ngal-ngali ngal-ngali ba mu teg dara sa wet ci doo seetlu ne am na lu gane si ci koñ bi donc nañuy bàyyi xel suñu bopp jàppale état bi ci xeex boobee vraiment wàññi rajax-rajax ji éviter lu ñuy divertir loo am na solo ndax bu ñu nee kaaraange vraiment ñun ñoo ko gën a soxla ñun ñi nga xam ne suñu buntu kër yi ay gardien n'est-ce El Hadj mais euh, wax nga dëgg ndax réew mi àgg na foo xam ni nit dootul wax rek sama yoon nekku ci mhm. sama yoon nekku ci moom boo ko waxee rek yaa kii yow yaay kii njëkk a yàq pénc bi pénc bi nag àgg na foo xam ni li nu gis ci li nu wër ci ay réew yëpp nekk fi mhm. la leen di dal jombul mu dal Sénégal buñ toog rek naan sëriñ si ñaan nan feek ñaan nan feek <laughs> loolu lépp du loolu du loolu nit ki boo dëkkee koo xam ni xamuloo ko mhm. mu am jëfandiku bu muy jëfandiku war ngaa xam war nga koo war a mën a wax. police ak gendarmerie am nañ ay numéro vert. Mhm. yoo xam mën nga caa wootee joo joxe si tur. Mhm. bu fekkee dangay bañ ko la xam sénégalais nag. danaan maa ko wax ak mhm. bii diwa ko wax ak yooyu yëpp amatul. fi nu àgg daal sunu kaaraange àgg na foo xam ni. ku ci ne war nga cee taxaw. gouvernement bi li man nga baal ma ñuy ñuy wax it lu ñu xam parce que doo woote police ne diw lii la da nga naan gis naa diw lii jaaxal na ma est ce que du ngeen ñëw seet yëddu ko waaw naan waa ji day jaay yàmbaa ceew mosoo gis taxañu yàmbaa këram tam mais El Hadj Assane loolu sax mooy na parce que dëkk bi dafay àgg foo xam ni da ngay bañ nit rek sosal ko loo xam ne <laughs> mais El Hadj Assane yor kër fii tabax ko di ko luwee ñëw di seet sa wàcc sa kërit war ngaa xoolaat. Ah. parce que ku ñëw rek nga luye ko ndax xaalis ba mu lay fay. boo nee cent mille francs lay fay mun na mën naa laa fay deux cent mille. Mhm. jox la avance su mois. Mhm. mais war na laa teeyal sa xel bokk loo bëgg bëgg xaalis par rapport ak sa dëkk. beneen bi ci des ku luye ci koñ am fa ñetti fan ñeenti fan boo guddi ngay xëy kenn du la gis bu cëg mhm. ñëw waa koñ ba ca chef de quartier ba war na caa mën a commencer. responsable ya fa nekk. ñu war koo wax. am na ay góor jigéen ak yeneen yuy am ci biir gox nit ñi gis nañ ko fa am na ay maison close yoo xam dañuy carte xaalis nit ñi di am ci ay gox te nit ñi duñ ko dénoncé. Mhm. yooyu yëpp El Hadj Assane amuñu réflexe boole. Mhm. ñun amuñu réflexe boole. gis naa lu ma jaaxal daal naa dem wax ko génn ci dem toog. xool parce que inconsciemment xamuñ ne loolu pour encore yow sa sa penc la. sa la ngay defar ak la ngay boole ji day ñëwaat day dal sa kaw. bu dee aussi da nga dal sa kaw. mais El gis koo xam ni danaan la. kii de tey suba lan toj kër gi. Mhm. benn waay na man de waa ji bi muy yëg gis naa ko. waaw ah, ce que. ba pare di xoole mhm. mais kooku ci ñoo war a ñi ñu war a njëkk duma la war a bokk. Mhm. parce que kër léegi àgg na foo xam ne boo tooñu mason bi. menuisier bi ku ne loo gis ci kër boo demee liggéey. gis fa loo xam ne wóor na leen li jaaduwul mën ngaa war a wax pour sa yoon lu ci ne. mais ba nga wax it dëgg El Hadj Assane wax nga baat bi. wax dëgg. bul mere nit rek ni gis naa ko nangam déplacé waa pour ñu taal seen mm, oto mm, mm. ili seen essence ñëw bu fa fekkee dara dañu dem ba bu ko ko wax ëllëg du la gëm du la gëm <laughs> ñàkk wax dëgg ci réew ci làggi loolu lay <laughs> indi xam dañu toog rek sonn alu ab sàcc koo xam ne biig daal gis naa ko mu ay télévision ñoo dem wër yi sax gis télé <laughs> da nga dee serveur vocal bi woote leen jëppur lii ñu woote naan ana keeg may ma morceau Youssou Ndour ana saa neex waaw mais yooyu la ñuy wax boo leen laajee boo leen dara sax au ñu wax la ko. Eh. leneen lan lay wax da nga naan hmm. loolu de suñu tam ñu ne mais looloo mat soxal. Ah. mais réew mi nag àgg na foo xam ni foog ñu yaraat nit ñi. dëgg la foog nit ñi jël am réflexe. Hmm. de sécurité. dëgg la réflexe mooy wax ak police wax ak hmm. sol di kaaj kaaj yi ñu naan garde cercle la bu njëkk mooy sa mbokk mi nekk police mooy sa xar mooy sa cousin. mooy sa xaritu xarit mooy sa mooy sa nijaay koo xam ni mën ngaa ak moom ci li sécurité réew mi mu jël ci ay disposition yoo xam dina dina fekk askan wi. en tout cas ni nga ko waxee rek ñuy bàyyi xel suñu bopp ca vraiment sans pour autant tiital kenn nag mais Sénégal aussi il faut ñu xam li ñu bëgg c'est un phénomène qui est là terrorisme kenn fentu ko kenn taxawul ne amu fi gis nga li xew Burkina Faso démb Mali naka noonu donc xam nañ ni mu ngi fi comme mu ngi fi nag moo góor jigéen yee dañ doon wax ne amu fii c' est une vue de l' esprit xam nañ ne mu ngi fii bu kenn ragal baat yi mais quand même dans ñu xeex ko mu ngi fii fitna la euh, fu ne ci Afrique fu ne ci àddina nañ ko moytu ñaan yàlla ñoom euh, état islamique ñu gën a dellu ginnaaw je pense que ni coalition yaa ngi ci sax gaa ngi leen di dóor frappe yoo xamante ne parce que bu ñu leen ragal aussi non c' ragal leen ñoom c' ragalu ñu dee am na ku may waxal dem sama turandoo Assane ma gars yi tax ñu naqaree xeexal ñoom seen bopp dañuy ñëw pour deewaale waaye ku nu arrêté nga yaru mhm. taxaw arrêté la xool. li sa oto nga yaru. Hmm. xam ni yow sa sécurité lu ñuy wut. ah gendarme yi ma gis. man ki ma ca ki ma ca may tardé dama am. Ah, Aziz gars yi ñemewuñ ko de gendarme yi pare li ci penc mi am na ku ma jàpp fee boori noonu. Hmm. dama ko wan lépp de. ñi ma gaa taxaw naan nag may tardeel gars yi ma gis ak seen fital yii gars yi kay il faut ah, man fital bokkee man damay tëdd tëdd laa ku yor fital taxaw ne la aja man fital man tàkkusaan laay tëdd tisbaar laay réer tëdd tàkkusaan man moom El Hadj Assane <laughs> mais nag xam naa ne ni ñu koy waxee na kilifa aussi di wéy di ñaan ndax ñaan am na solo lool ah gars yi moom lu ñu mën a yor ak xeetu ngànnaay bu ñu mën a yor yow saas euh, suñu kilifa yu baax yi vraiment ñu ngi per yoo xam ni daañu la gëlëmal ba boo moytuwul sa sa kaw lay tàkk mooy mooy ñaan mooy mooy ngànnaayal jullit mhm. adduaa u silaaxul muminina ñaan mooy ngànnaayal jullit mhm. nga ni am na koo xam ne euh, génne na pistolet tiim taal mu ne taj du tàkk dëgg la douze coups la ci def mais du tàkk la waral lool nag mooy ñaan. réew mi réew la moo xam ne ay wëllu yoo ko dëkkee ay mag ñu baax a ko dëkkee daj ay coono yoo xam ni. la fi la fi amoon bu njëkk mooy ay ceddo yoo xam ne dañuy war fas kii dem Kajoor kii dem Bawal kii dem euh, beneen dëkk di xeex ak a naan sàngara xamuñu yàlla xamuñu yërënt bi mm-hmm. mag ñi ñëw xeex loolu xeex loolu ba indi euh, ba indi civilisé civilisation boo xam ne amul woon ci Sénégal amul woon ci lii wër biir réew mi mag ñooñu jar nañu delloo njukkal mais ñun ñu fi desandi yàlla Sénégal ku fi nekk sopp nga mag ñooñu yaakaar naa rajo mm-hmm. san mm-hmm. kenn koo ci dëkkmal roy ko mm-hmm. euh, sa njaboot dana baax waaye taw yow itam di nga teg tegu ci yoon wu dëgg la oustaz nit da ngay am référence nit da ngay am royukaay n'est-ce pas euh, di nag ziar baax sama doom bay Massamba dama foogoon dafa xaw a tardé si waaye lii du tardé li absence la <laughs> masamba Gueye yàlla nay jàmm foogoon ni dafa panne essence ci yoon yi wala a ba toj waaye comme <laughs> conseil conseil du chef de l'état la warul panne essence Massamba warul la panne essence ah, waaw waaw kon conseil dafa def lu ko neex moom kay moom kay bu ñu joxul essence nag warul la panne essence <laughs> jërëjëf El Hadj Abdou euh, ñuy gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm du yëf yi du bari wax <laughs> ñàkkum élément yi ti la ak ñi absence wax dëgg yàlla il fallait quand même combler le vide oui c'est vrai sénégalais yi dañu compliqué dañ yi dañoo xëy ne foofu di wax yow xamoo lu tax wax ji bari yaa ngi sa kër toog taal sa télé fayoo redevance ah aca 8 xibaar yi Fatou Kiné Dème ñu ñëwaat ak yéen ci ñaareelu xaaju yeewu leen leen nuyooti di rafetlu ànd beeg télévision Futurs Médias xibaar yi ñu tàmbalee ko ak la xew démb ca pencum ndawi réew mi euh, député yi nag wanete fa seen bopp euh, xëccoo ga mel ni tulleeg euh, Mali ñoom député yooyee nga xamante ni sax dañoo yoroon ay morceau yu xonk loolu nag mi ngi amoon gannaaw janoo bi doxoon ci diggante nguur gi ak ndawi réew mi libéro yi nag ña nga xamante ni ñoom ñoo far ak Aïda Mbodj la ñuy sàkku nag mooy groupe parlementaire ba ñu jiite ko ña far ak ñoom it ñu gis ni ñoom dañoo mujj sax gedd de salle ba leeral yeeg Mame Birame Diouf. premier ministre ak gouvernement yoon ñoom ñii di def lépp ngir yàqu liggéey yi nga xam ñu ko amal ci assemblée bi Thierno Bocoum ne am nañ ay laaj te loolee bëgg nañ ñëpp dégg ko mu ni kon waxtaan amul ci assemblée mu koy xam ne Maître El Hadji Diouf feelu ko ni démocratie nag ñàkk na fi moom député non inscrit bi di jàppale ay Mbodj ak ñamu àndal. on libéraux et démocrates mosuñu ko taxawal benn yoon président assemblée nag ni muy doxalee du noonu. intervenants mais dans la salle y a ñu xamal leen ne Ousmane Ngom bàyyi na kon fukk ak benn ci fukk ak benn yi ñun am nañ ci juróom-ñaari signature waaye nag def nañ réunion boo xam ne juróom-benn député taxaw nañ huissier constaté ko ñu jël constat bi 17 novembre ñu jox ko président bi mu ne loolu rek la bëggoon a xam ñu jàpp ni ñun ay gor lañu. wax naa ñun ñu wax delloo ko ñu jàpp ci loolu boobaak léegi wuyuñu. du Diagne Fada di andi tontu ci li xew. Euh, nous avons été euh, régulièrement euh, élus président du groupe parlementaire de libéraux et démocrates jusqu'au mois d'octobre 2016 groupe bi taxawal nañu ko mel ñu falma mandat bu war a jeex octobre 2016 kon jàpp naa ni ñoom ñi ni ñu doxalee du noonu. te sax bu fekkee ne des ci biir groupe bi wala ñu soppi. qu'ils comprennent que ce n'est pas par ces méthodes là par cette façon là qu'ils puissent euh, y rester. njiitu assemblée nationale bañ lépp ngir kon mën a dàq ñii ci euh, biir salle bi waaye loolee defu ko donte sax kii di Ahmed Suzanne Camara yëkkati na ay kàddu yoo xam ni ñaawlu nañu ko jëmale ko ci Mamadou Diop Decroix ak ñi mu Monsieur le président de l'Assemblée nationale. honorable député. Moustapha Niass bañ tontu ñi waaye ñaawlu seen doxalin. me permet de vous faire expulser immédiatement mais le ferai pas. Aïda moom jàpp ni seen manifestation bi jàmm rek lañ ci doon wut. waaye kii di député socialiste bi la ay Tall Sall moom ñaawlu na ko bu baax. defe naa askan wi lii ñu am tey si ngoon askan wi laaju ko woon askan wi dafa bëgg ñu jublu ci seen i tawat askan wi dafa bëgg ñu jublu ci seen i tolof tolof askan wi dafa bëgg ñu jublu ci seen i jafe-jafe. Eh, ca pencum ndawi réew mi la ñuy eh, des eh, foofee wax nag ci kaaraange gi ñeel Sénégal jëriñ di dénk biir réew mi fësal na ko nee na Sénégal am na ab cellule buy xeex wàllu terrorisme ni ñuy fexee ba gën cee fegu waaye tamit am na beneen cellule boo xamante ni nii teg nañu ko ngir nag mu ottu kaaraangeeg askan wi ci biir réew mi te cellule boobee nag noppi na saa yu ñu leen soxlaa rek pare nañu ngir tontu ci li ñu leen di laaj ñu teewlu ay kàddoom moom Abdoulaye Daouda Diallo ci micro Mame Birame de police et des actions de routine de contrôle de police, de gendarmerie et bien évidemment de l'armée et am na liggéey goo xam ni police mu koy def jamono ji ak gendarmerie ànd ci ak armée bi ak yeneen service paramilitaires yi muy ay patrouille yu ñuy def ñaareel sax ñu ciy ànd lépp nag ngir aar réew mi aar ngir dara bañ ñoo bett bokk na ci ñu yokk kaaraange gi ci yenn bërëb yu nit ñi dajee rawatina hôtel yi ak institution yi. lu ci mel ni fii ci assemblée nationale beneen liggéey goo xam def nañ ko lépp ngir kaaraange mooy taxawal nañ ab cellule anti terroriste am na it beneen cellule gu ñu taxawal boobee nag dinañu ko doxal saa yu mbir xewee rek te mu laaj ko. nous avons mis en place aussi une cellule de lutte antiterroriste donc coordonnée par le ministre de l'intérieur leneen mu wax it bokk na ci hôtel yi nga xamante ni nii euh, du ñu euh, sàmm lu jëm ci wàllu kaarange gi nee na nag képp koo xamante ni teggi nga euh, yoon bi dinañ tëcc hôtel boobe ñu des ci assemblée nationale ak mbirum lamin Diack ndax loolu tamit yëkkati nañ ko fa njiitu jëwri nii moom nag nee na wóolu na bu baax a baax justice bi te nag mi ngi am yaakaar ci lëkkaloo diggante France ak Sénégal waaye nag lu jëm ci yóbbu doomi Sénégal bitim réew ñu àtte ko fa Mohamed Boun Abdallah Dionne nee na loolu loolee du ñu ko nangu benn yoon euh, ñu des ak Lamine Diack ndax ak avocaam ñoom euh, fi mu ne nii nag danoo mere bu baax kii procureur bii di Hélène Houlet nee nañ nag na mu doxalee euh, dëppoowul ak yoon ndax dafa daal di xawi sutura boo xamante ni nii waru ko woon def mu nekk nag kàddu yoo xamante ni mu ngi ko yëkkatee ca Allemagne gannaaw ab conférence boo xamante ni agence bi xeex wàllu drogue mi ngi ko doon amal foofee ay avocat am nag naqarlu nañ loolu bu baax baax ñu àddu ci leneen ni ñoom ñoo am kër euh, ca cité Namora wala bokk terrain ñooñe nag mer nañu ba futt dañu bootu sax ci ab collectif di naqarlu euh, lu ni mel ndax dañu gis ni foofee dañu leen faa jaay waaye nag euh, këyit yi wane ni ñoo ko moom ñoom ba nëga jotuñu ci këyit yooyee démb nag janoon nañu ak taskatu xabaar yi ñu ngi sàkku nag ci njiitu réew mi ak kilifa yi ñu taxaw bu baax baax ci jafe-jafe yooyu nga xamante ne nii moom la ñuy jànkonteel seen lim a toll ci fukki coopérative yuy sàkku seen àq ak seen yelleef ay kër ay terrain ñu jot ko ci atum 2009 ca cité Namora ci Tivaouane Peulh ña ko moom nag jàpp ni mbir mi jokkalante ci wàllu suuf am na ci la leen itam jëm na ci anam yi ñuy dundee. depuis 2009 nag li ñu tere dëkk foofu mooy ndox ñëwul courant ñëwul loolu terewul ñi nga xam ne. jànkonte nañu ak ay coono fayum luyaas banque yi di leen dagg ñu ñëw dem tuxu ci condition yooyu parce que ñëpp xam nañ ni fii dëkkuwaay daf fi jafe dund gi neexul. gën gaa yées amuñu benn këyit buy màndargaal ni ñoom foofee ñooy boroom ñu seetlu tam ne décret bi ba nëgë kenn signé ko. juróom-ñetti coopérative lañu mun naa leen li muy Cotecna SUTSAS ICS. ONAS FENAF ak waa jaspora jaspora France ak diaspora États-Unis am na ñeneen particulier yoo xam ne ñoom ñoo signé directement ak Namora léegi li tax mu am fi ñaari collectif ñun dañu demoon di doxi lu jëm ci suuf yi pour ñu immatriculer ko ci suñuy tur ndax loolu la amoon accord ak Badiane léegi 2009 ba léegi nag sept ans la ñun li ñu jaaxal mooy lu tax état bi ci diiru juróom-ñaari at mënuñu signé décret boobu. muy Sénégal ak biti réew fu ne ña fay woote wallu ndax seen kër yi ak terrain yi dafa am ñu taxaw tem ngir nangu ko teg ci jaay ko. bi ñu toogee nag di lijjanti mbiru suuf yi euh, ak euh, autorités yi nekk ci Sénégal surtout que monsieur le président de la parce que moom rek moo mën a signé bàyyi ah am na keneen ku wëlbatiku daal nii moom amoon na jafe-jafe ak Badiane ba léegi tribunal nee na ko jox na ko ndogal pour mu jaay suñu kër yi. wante nag du kër yi rek la ñuy jaay parce que nee nañ dañuy jël jaay suñu kër yi wante am na case des tout petits bu fa nekk am na boo xam ne commencé na sax di am ay xale yu fay jànge ñu bëgg a jaay jàkka ji jaay suñu siège ñun SUTSAS jaay en même temps aussi centre de santé bi nga xam ne bëggoon nañu mu ubbi ci fan yi néew. collectif bi nag ne seeti na ay avocats ngir nag procédure bi ñu neenal ko. ñu àddu ci leneen wax nag ci jëwriñ ji jënk euh, ndox mi taxaw ngir salaat euh, téyo ba nekk ca Hann Fann téyo boobe nag am na juróom ñaar fukki at màggat la def euh, teg nañ ci nag ay koppar yu solo mat na ci benn milliard liggéey bi nag kon dana daal di door door na sax la ñuy wax ñaari fan ci weeru janvier dana noppi nag ci weeru mai lay doon atum 2016 jëwriñ ji di Mansour Faye doon amal ab nemmiku démb ca bopp waagu ñaay ñu ànd ci ak Maymuna Njaay ñeenti nataal yu wane màggetaayu collecteur bu Fann an te mu yóbbu ndox mu bon mi seetlu bi mooy lu ëpp juróom fukki dëkkuwaay laal nañu ko jëwriñ bi ñu dénk lu jëm ci hydraulique ak assainissement dénk waa ONAS ñu defaraat ndox mi fi muy jaar fi mu toll nii téeméeri mètre ak fukk jot nañ ko defaraat ci lim bu yegg ci juróomi téeméer. gis nañ ni teg nañu mat euh, téeméeri mètre ci ay conduite donc lu am solo la parce que lu ñu waxoon la ni dañ ko def commencé nañ ko def te ñu ngi koy wax comme ni ñu koy waxee woon euh, lii nga xam ni moom la ñu posé à peu près valeur na un milliard la donc mooy jël gox yi nga xam ni fa la conduit jaar mais critère wuñu ci kawam donc boo ngeen seetloo ci kaw talibal bi ci kaw tali lañ koy jaarale nii. liggéey bi ñu sumb ko dinañ ko amal ci ñetti pàcc ci kàddu Mansour Faye dina am daal ci ñi féete ci HLM waagu ñaay ak li ko wër koppar yi ci dem mu ne mën nañ koo laalaat yokk ko bu baax. lii nag partie bu première partie la parce que boo seetloo conduite bi à peu près ci juróom-ñaari kilomètres la mi ngi def mi ngi ci def ci lu toll à peu près gennaal kilomètre ci nga xam dañ ko tànn parce que côté yi aussi fi mu doon màbb fu doon màbb lu bëri la woon donc ñu ni fi doon màbb fi nañu ko privilégié def travaux yi. un milliard bi nga xam ne moom la ñu dépensé nii ci budget bi la jógee. donc lii dafa nekk lu xam ne lu solo la parce que dafa am risque gis ngeen ni am na wax nañu am na gaz boo xam ne day échappé bu fekkee euh, regard yooyu nga xam sax ñu ngi ci biir kër yi donc mën maa dee taal mën ne musiba mais loolu dinañ ci ay mesures sécuriser regard yooyu. askan wi ci seen wàll nee nañu seen xel dal na wante nee nañu doon na gën a baax su bayeer yi maanaam ñi ciy dugal seen koppar gën cee jàpp bu ko defee yeneen gox yi nga xam ne ñoo bokk tawat dinañ ko defaraat. dañu bëggoon lépp lu leen gouvernement bi laaj ñu fexe dimbali jox leen ko parce que loolu ñun su njëriñ la xam nga lii Biscuiterie la Grand Dakar ak nu mu tuddati Fann Hann demul Plateau donc ñun bàyyee ñun bu ñu sañul bàyyee lu ñu lu gouvernement bi laaj ci jox ko pour lii àgg ak leneen nag loo xam ne lii dina jëriñ suñu commune liggéey bii ñu nar ko nar tàpp ci njeexitalu weeru mai techniciens yi ñu leen di ñaax ñu jàpp ci ba bañ weesu date bi nga xam ni moom lañ leen jox. Maymuna Njaay cant ngërëm euh, ñeel na la ñu fàttaliku ndem euh, si yàlla euh, Moussa Ngom ci weeru octobre ci la génn àdduna artiste bi nekkit président président bu PDG bu groupe Futur Média Youssou Ndour demoon na Gambie nag ngir yeesal njaalam jébbal ko njabootuk Moussa Ngom moom Youssou Ndour nag yëkkati fay kàddu yu am solo di fàttali rek li nga xamante ni moom moo ko booleek Moussa Ngom muy wax nag ne lu dëggu la ndax Moussa Ngom nekk na ko xamante ni daf koo mës a jox cër leeral yaak Daniel Diouf. gannaaw bu Moussa Ngom génnee àddina yu Ndour njiitu Super Étoile di président directeur général bu groupe Futur Média jóg na dem ci alxames gi doxi tànku njaal ca Gambie fekki fa ñii di njabootu doomu Sénégal bi boobee Youssou Ndour artiste bi dellu di fàttali li mu bokkoon ak Moussa Ngom ak njabootam ja li ñuy njëkk a ñëw fii man ak Mbaye Dieye ak quelques membre de jamono boobu temps Gelawaar moo nekkoon orchestre waaw keroog fa lañu ñu fanaan ngeen hébergé ñu ñu ñëw di seetaan depuis booba yow moom dañ jaxasoon Moussa fu ma ko gis cër ba waxtaan ba ak dénkaane yi ndax man euh, Moussa dama ko mës a bëgg comme waykat waaw ni ko Sénégal yëpp bëggee Sénégal bi yëpp bëgg ko noonu laa ko bëggee woon témoignage bi yëpp benn la mooy man am naa ndax sama diggante ak yow diggante famille am naa pour ñëw ba fii jaale si te yàlla na ko yàlla xare àjjana saraxam yàgg seen loxo kàddu yi lee waa kër ndem si yàlla si dëggal leen rafetlu bu baax yi taxawaay Youssou Ndour ci famille bi. comme ni nga waxee Moussa Moussa suñ Moussa la ndeysaan yoon wu suuri la ba ñoo nekk bopp Rue 3 tu te rappelles boo ñëwaan toog ca banque ba ñu ñëw toog grand lu def nag ma ma dem li jëti dara ñëw xam nga loolu la toog di ko fàttaliku dafa neex tey bu demee ni alali yàlla la mun ci dara Moussa Moussa ñëpp la woon ku baax la woon. ku dal la woon ku dallu ci lim doon def waaye yàlla ak mbiram ni la jooy na jooy bu mu yóbbaale muy Sénégal Gambia bennoo yal na ko yàlla def. njiitu Super Étoile delluwaat di ñaax njaboot yi nga xam ni tey soxna si di soxna ndem si yàlla si moo ko uuf Youssou Ndour yëgal leen ne sas bu rëy lañu am muy seen warugal nag ñu sàmm bu baax li leen Moussa Ngom bàyyee. jëfam du fay. <coughs> donc moo tax xale yi euh, am ngeen sas waaw moom def na li ko war yéen yéen a ci des li fi bàyyi yëpp li fi bàyyi yëpp yéen a tax boo ko yàqee yàq ngeen lu rëy boo ko defaree defar ngeen lu rëy kon nag euh, ñu ngi leen di ñaanal ndax jamono ji léegi dafa naqari ci fàttali artiste sénégambien bi di Moussa Ngom moo ngi génn àddina fukki fan ak benn ci weeru octobre ci atum 2015 fii ci Sénégal. ndem si yàlla Moussa Ngom yàlla na yàlla oyofal suuf ci kawam xaare ko àjjana mbokk yi fi leen di tàggatoo ak yéen bi dig leen daje 13h ci yeneen tutaayu xabaar. jërëjëf euh, Fatou ne dem ci yooyu xibaar incha allah 13 yeneen xibaar ak rédaction bu télévision Futur Média ñu leen di gërëm di leen sant euh, ñaareelu xaaju ko yeewu leen ak télévision Futur Média euh, wàllu correspondant yi ca la tey nag diwaanu mbuur la ñuy wutali Mbour Saly Portudal xam naa Abdou Aziz ak Yawou saas léeg-léeg ñu làqu ji ci daal di noppalu as aslëf nag ndax ndakaaru moom ak rang-rang yeeg <laughs> xat-xat yeeg gasoil beeg dépense yu bari Abdou Diouf junior maa ngi lay ziar. voilà ñu jàpp ci tuuti rek as lëf euh, retour bi am Abdou Diouf Junior en direct ak ñun ca Mbour Abdou Abdou Diouf euh, damaa ragal mu daal bi def yëfu séeréer dafa juutal téléphone ba fi mu ne fa mu a waxee lay dégloo di waxee fa muy dégloo <laughs> kon ñu daal di ko rek euh, may mu defarwaat di ñaanit au niveau kon ñu indil ñu invité yi di jéglu bu baax nag tey ci wàllu rubrique yeeg yéen nag ñàkk tëradi bi li ko waral rek bokk na ci. Euh, ay ngant ci yenn ci sunuy nattangoo incha allah ajjuma seen rubrique yëpp dina waat jikko yi Adja Binta Diallo dina teew incha allah euh, Oustaz assan ci wàllu ko daan tey sax dëgtal nañu waay ju yëngu ci wàllu njaayam lunette am nañu gan euh, Ibrahima sa Faye bu association presse en ligne dinañ am gan beneen assow moo ci collectif wu ñi fekk baax bargee ji ci ndakaaru lañ nekk ñoom it ñàkkum ndox ci askanu foofee paanu forage metti lool dina ci waxtaanee ngir kilifa yi rek def ci seen kem kàttan ba daal mu daal di jubbantiku ni mu gën a gaawee sira euh, suñu gan ak oustaz Pape ngañ Ngagne la ngañ Mbaye moom euh, dina daal di teew tëj euh, jotaay gi ci kanam tuuti lay doon Maawo Cissé publicité wala benn jëngal wala ñu de ñu dellu comment voilà fitness lañ ma wax Alfi moo leen daan dal ci wàllu tàggat yaram gi gars yi yëngal yaram bi tuuti yàlla micro derrière wala takkal nañ la alfi voilà kon micro baa ngi teew très bien. la sant foo foogoo ne alfa alfi mi mën naa mën na mën naa ñooy ñooy di tëbëk di dal. déedéet moom kay xanaa mu introduire gars yi rek. Ah, waaw ah. sport naa fi mu nekk nii xanaa ñaar ba ah. def nuru na ko sax. Ah, waaw waaw ko tëb yi ñuy def nii. non tax ma sol équipement avant de. waay di naa def waaye Alfi <laughs> waaye kenn du Alfi mais non Alfi et puis Alfi il n'a pas perdu la ligne. man gis naa fi ñoo xam ne ay jéy na ba Seydou ba kenn xamante ni am na fi ñoo ci kër gi. Hmm. ñoom ñëpp perdre nañ de ñoom madame Ndiaye ak Aïssatou Diop ñoom ñëpp koo ci mayee rek. madame Ndiaye ak Aïssatou Diop Fall Sooda Thiam barki Dembo Ndiaye RFM kenn koo ci maye rek mu perdre laa ligne. donc seen loxo moo tax ñoom dañu ñun dañu war a ànd ñun ñi nga xam ne ñooy nijaay yi da dem dolli nag suñu gore yi dolli leen mais mais loolu ci la bokk mais Adja Joséphine miit war nanoo seet ndax war naa mën naa war a mën a tëbëgee parce que ko mënu ko ah? <laughs> Aïssatou Diop Fall mënul de. ñoom dañu a marche. ak madame Sarr ñoom ñëpp mënul tëb madame Sarr madame Sarr moom it elle a perdu la ligne madame Ndiaye xam naa moom jàmm ju bari rek leem-leem dee ko fay tardel danaan ma jël Ela <laughs> moom yàkkamtiwu lay waxam wala musóor gi tardel ko Alfie <laughs> waaw euh, ñu jàll ci waa fitness rek euh, ànd ci ak waa Rahma Damba euh, fitness ñoom ñooy ñëw mercredi di ñëw ci àjjuma bi tamit donc coach maa ngi leen di nuyu ça tey nag lan la ñu am au menu tey moom step lañ am ah. waaw tey moom step la ñuy def step moom ban njëriñ la am ci sunu ci sunu yaram waaw step mouvement aérobie la mais li muy liggéey mooy tànk yi la ëpp li muy liggéey. tànk yi waaw ndax da yéeg di wàcc. Eh, yéeg di wàcc des fois nga tëb waaw. d'accord tànk yi lay gën a liggéey. tànk gën a liggéey kon ñu bàyyi leen ak euh, ñi ñuy seetaan. ngeen wan ñu nan la ñuy defee step après ñu xool ñu xool conseil du jour yi. voilà d'accord amul benn problème. c'est

4, 5, on y va, 6, 7 et 8, on monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tendez carrément les bras. Carrément, c'est ça. 1, 2, ok.

4, 5, 6, 7, 8, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3,

deux, trois, aïe, quatre, ne le lâche pas, cinq, six, sept, huit, trois fois maintenant, une, deux, trois, une, deux, trois, c'est bien les gars, go, une, deux, trois, encore, une, deux, trois, on revient, maintenant ici, tape, hop, Hop, un cœur. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, et 1, 2 au milieu maintenant. 1, 2 sur le côté. 1, 2 au milieu. 1, 2 sur le côté. 1, encore. Au milieu. Un. Deux. Squat maintenant. Un. Deux. Au milieu. Encore squat. Un. Aïe. Deux. Une. C'est les fesses vers l'arrière. Trois. Hop. Encore. Hop. Aïe. Ah, La dernière. Deux. Trois. On revient maintenant. Un, deux, trois, quatre, cinq, on y va. Doucement, vers le côté. Ok. Revenez. On On revient. on revient tout doucement. Cherchez devant. On étire les ischios jambiers. C'est bon. On revient doucement. Allez. Ok. une jambe sur le step. C'est bon. On descend tout doucement. On garde le buste droit. Voilà, revenez. Changez de jambe. Tiens, on y va. Descendez. On revient. Et je remercie mes deux gars. Ils sont braves. Yep. Les deux gars. donc ah, bi ah, ok tey lan mooy nekk conseil du jour bi. conseil du jour bi c'est toujours exciter inciter les gens à faire du sport. du sport parce que ba le passé boo seetloo waxoon nañ ci condition physique. tout à fait lan mooy condition physique. tey dañuy ñëw xamal nit ñi condition physique lan lay def ci fréquence cardiaque. fréquence cardiaque mooy nombre de battements du cœur par minute ñu xool biy dóoree par minute ki nga xam ne day def fitness di entraîner chaque jour. bokkul ak ki nga xam ne du entraîné. parce que ki du entraîné nombre de battements 70 lay doon entre normal 70 ak 90 par minute mais bu dee da ngay entraîné mën na wàcc ba 60. léegi da ngay jël différence par exemple dama lay jox exemple différence ki nga xamante ne nii day entraîné am 62 par minute ak ki nga xamante ne nii day du entraîné am 72 par minute léegi ce qui fait que ils ont une différence de bi ñaata la. 600 battements de différence. kon loolu am na solo. am na solo man mi entraîné. sama këru kee dina battre 600 fois. sama kër en une heure sama kër en une heure jour bi mois bi année bi ce ki fekk man sama xol mooy ëpp chance yu yàgg. ko xolu ki nga xamante ne nii. di entraîné daal ñuy entraîné euh, encore. ñëw Rahma Damba fitness. ñëw nañ ñëw Rahma Damba y' a tout là am na pour mag am na pour xale. voilà parcelle unité 22 en face mairie Padois. mairie Padois voilà ñu kon euh, ñu delloo antenne bi tonton Assane ginnaaw bi ñu dégloo conseil du jury. waaw tonton Assane. waa Rahma Damba pare nañu. joxe nañu conseil du jour par rapport euh, ak kuy exercer. kuy entraîner ak ku dul entraîner. Mhm. donc wax euh, différence de battement de cœur donc loolu jar na bàyyi bàyyi xel. jar na bàyyi xel waaw on a on a compris on a li entre les lignes Alfi nee na ñuy jóg Abdou Aziz ak euh, yaa Oustaz di di tàggat yaram donte sax Oustaz ak xam naa Aziz dañ koy def nag xale yi xamul ñoom off Oustaz ban ban ban ci karaté aar yi ngay def art martial bi ngay def karaté yoga judo <laughs> wala wala marche rek. yoonu jàmm c'est bi may def. Hmm. dama koy bañ a wax. Hmm. Euh, li may xam di feeñal fem. li may feeñal samay fem <laughs> mais damay sport. voilà damay entraîner. Uh-huh. damay man damay on marche ma. parce que tollu ko ma fa may marché. Mm-hmm. marche mooy ñi am ay. quarante màgget yi man damay daw. damay dem salle damay entraîne damay football. très bien. am na solo mais hmm. man de El Hadj Assane Oustaz Pape li wax moom. nee na hmm. àggagu foofu. Hmm. waaye man dinaa dinaay waaxu. waaye El Hadj am naa weneen feem. maa ngi yatu kel woo xam ne ak <laughs> moom ku ma dogalee boo deful ndànk boo nee jëy sa loxo rek. dan lay for. mais nag Aziz xeeti agresseur léegi parce que bu njëkkaan dañ naan ay dañ lay at dogaale ku lay dogaale mën nga jëflante ak de scooter la ñu yor. am na lu ma mën sax damay yore wet parce que léeg-léeg <laughs> te yatu kel doo ko dóor fu ne laaj asan hmm. boo déggee yatu kel kenn du ah. dafa am fu door dóor yatu kel ban koy wax hmm. dafa am foo xam boo ci dóoree waaja du jóg ah. wala dina sukk lu yàgg ñu hmm. fekk ko fa moo dem ku ni tëstani yeeg yooyu nopp ñu dóor la ci yatu kel surtout yatu kel xam dañ koo roof ci ci ci ab doom ba mu tàng jër ñu doog koo tàll. <laughs> jërëjëf Abdoul Aziz bon c' vraiment la face cachée de de vraiment face violente de Abdoul Aziz <laughs> ñu ngi ak ay gan mbokk yi di ànd ak euh, ki nga xamante ni mooy suñu naatangoo Ibrahima Lissa Faye Ibrahima Lissa nag euh, moom mooy euh, président association presse en ligne Ibrahima ñu ngi lay nuyu di rafetlu sa teewaay rawatina matinal gi xam naa ni yombul liggéey baa ngi xaar mais vraiment kontaan nañ ci teewaay gi. maa ngi di sant bu baax ah. El euh, Hadj sant téléspectateur TFM yëpp. très bien euh, li waral ñu invité la ci kanam tudd nañ gën a yaatal waxtaan wi mooy presse bi ak euh, internet gi vraiment dafa bari ay yoo xamante ne daal di ciy sërëxalu yow mi nga xam da ngay taal sa internet da nga naan est-ce sax am na luy segg il faut que loo mënti gis dañ koy segg muy lekk buy dem ci biir dañ koy segg waaye li dem ci xel bu ñu ko seggul it ay ay xale yu téppariñ ko rek la ñuy am il faut que ñuy segg internet bi ak lépp loo xamante ni moo cay jaar avec bien évidemment ndimbalu état bu Sénégal geneen gan As Sow sëñ As maa ngi lay nuyu. Euh, ñoo ngi lay fay. jërëjëf ma leeral ni ci mbootaay yi ñi fekk baax barke ji ca nekk fii ci Ndakaaru bu dee damm naa baat bi barke ji la ñuy wax. waaw barke ji la ñuy wax barke ji très bien. ressortissant barke ji fii ci Ndakaaru ñoom nag danoo am lu leen xaw a daal di jaaxal metti sax la ñuy wax ñàkkum ndox ndax askan bi ku ne xam nga ni ak ndox mooy ak dund foofee nag forage ba fa ne moo paan diir ngi de suñu sañoon ñu jàppale leen ci ñoom nag di ressortissants yi taxaw nañu ci ñoo ngi yëglu boobaak léegi ñu ngi defi action moom it dinañu wax fan ci toll paan gi diir bi ak yenn solution ngeen di xaar ci kilifa yi ngir ngir n'est-ce pas waa barki ci saw ah très bien euh, à tout à l'heure kon ñu dem ci waañ wi ndax euh, dañ leen di xamal it euh, chers invités ni di ngeen ndékki laata ngeen di tàggu ñun ndax danoo yam suñu waañ ñu it ak soxna Alfi di ànd saa su ne ak beurre Sofia kon fii sandwich free lay defar maanaam sandwich boo xam ne dañu koy saaf Euh, waaw tey jii xam naa ni moom euh, <laughs> Abdoul Aziz euh, yan ñoo koy summi moom mbayeen bi boo ko saafalee sandi sa mu dem ak moom. benn loxo nag du dawal di Aziz. booy boo damaa woor tey de El Hadj Assane man nga maa bañ a prévoir damaa woor. waaw <laughs> uh-huh. <laughs> tey moom El Hadj Assane. ndeysaan jërëjëf Aziz yàlla yàlla fay la ndax dafay sakkanal ndékki li rek. dëgg la keneen kan ku woor fii. yaa oustaz wooroo. déedéet wooruma. <laughs> ay jë albi bisimilah. damay ndekki wooruma. <laughs> donc tonton Assane comme niñ ko annoncé sànq euh, dañuy defar ay xeetu sandwich yoo xamante ne dañ koy saaf maanaam dañ koy composé euh, du nekk dara lu dul pain de mie pain de mie yi nga xamante ne. Euh, am na ci boulangerie yi mooy mburu yi nga xamante ne ñuuxit rek lay am. mooy mburu yi nekk forme forme carré donc moom la ñuy utiliser tey pour mën a defar suñu ay sandwich hmm. entre autres am nañ fi ketchup. bu ñëpp xam am fi moutarde ak mayonnaise moo xamante ne moom mooy euh, servir de sauce pour sunu ay sandwich bañ a wow maanaam yii la ñuy jël def ko ci biir pour sooy lekk sandwich yi nga gën ci am nga am ci ay ay gëneel toujours euh, légume mu nekk benn tomate boo xamante ne tomate dafay dafa ànd ak euh, xeetu sandwich yoo xamante ne yii nii parce que daf ciy àndi benn touche mooy la boo xamante ni moom la sandwich bi di am donc am naa fitam itam fromage râpé tey ma andi gouda donc mu nekk benn fromage boo xamante ni dafa xaw a saf xorom donc moom tamit euh, day dem ci sandwich bi am fi ay steak yoo xamante ni viande hachée la boo xam ne xorom ak poobar tey rek lañ ci def donc defuñu ci benn épice defuñu ci benn euh, yokkuñu ci benn additif. Hmm. donc dañuy jël euh, maanaam sunu pool bi nga xamante ni moom la ñuy defee sunu steak parce que il faut rappeler que yàpp yi dañ koy togg ba pare avant ñu koy def ci biir sandwich bi ba di ko saaf. donc suñu ay partenaires yi nga xamante ni du ñu mën a ñàkk ci recette bi muy les beurre Sofia toujours euh, di ñu accompagner euh, recettes yi sucré wala sale toujours ñoom dañuy ñëw ci biir cuisine bi donc dañuy tibb benn kuddu beurre Sofia def ko ci biir euh, pool bi donc boo déggee nag maanaam steak yi nga xamante ni en général moom la ñuy gis ci hamburger yi da jël sa sa sa viande hachée def ko be def ko boulette donc bàyyi ko ci sa frigo ba mu xaw a Euh, maanaam xaw a jàpp tuuti donc après nga jël sa sa maanaam sa loxo donc aplatir ko ba mu jox la forme steak yi nga xamante ne moom la ñuy faral di gis ci biir ci grande surface yi maanaam ci ay fast food ak ci ay euh, grande surface yi nga xamante ne fa la ñuy jëndee li ñuy lekk donc ñu jël maanaam sunu steak teg ko directement ci biir poêle donc après nag dañ koy dimbali maanaam euh, gën ko tàccal maanaam dañuy jël. sunu kudd bi nga xamante ne loolu moo ko yëkkati donc gën a aplatir steak pour mu mën a dem ci pain de mie bi nga xamante ne ci lañ koy def après maanaam dañ koy dañ koy tàccal ba mu jël forme pain de mie bi donc da ngay jël sa bu fekkee amuñu genre kudd yi mën nga jël sa kudd cunoir rek donc tàccal ko pour mu mën a dem ci biir ci biir pain de mie bi donc mën na nekk ay recettes yoo xamante ne dina baax ci goûter xale yi parce que am na xale yoo xamante ne dañuy yendu école toujours mburu bi genre recette yi mën na changer sunu ay façon maanaam yi ñuy yi ñuy lekke donc rappele que viande hachée bi soxlawul tamit mu yàgg ci taal bi torop parce que hmm. sinon day dëgër ba pare dañ koy saafaat euh, am dafa am beneen deuxième cuisson donc suñu gisee ni ndox bi maanaam ndox bi nekk ci yàpp bi jeex na mën nañ ko génnee donc le temps que muy caraméliser suñu suñu sunu viande hachée bi mën nañu jàll ci soos bi nga xamante ne mooy composé mooy dugg ci biir sandwich bi donc mu nekk mayonnaise ketchup ak moutarde boo xam ne dañ koy jaxase. <laughs> donc mën naa jël kudd bi. donc du doon toll ci loo xamante ne mooy defar sandwich yëpp muy soos euh, soos cocktail en général moom lañ koy faral di wax donc dañuy tibb benn kuddu moutarde parce que yii nii mooy safal quand sandwich yi nga xam ne moom la ñuy lekk. mu mhm. am tuuti goût donc ñu def ci tuuti ketchup donc mélanger jaxase mélange bi maanaam après ñu jël base bi nag nga xamante ne mooy mayonnaise ketchup ak moutarde mhm. donc def ko sunu ay pain de mie. maanaam dañuy tartiner mhm. maanaam ci biir ci biir kase soxlawul ci biti donc benn mhm. bii mooy ñëw tëj beneen bi donc moom tamit ñu ne ko ci biir donc jël sunu steak bi nga xamante ni moom lañ doon defar def ko ci biir maanaam ci biir euh, pain de mie yi mm. donc sama waa ji léegi léegi kooram gi yem fi de. da ngaa woor alaaji kooru Abdou ah. Aziz gii ah. metti lool tey. daa teel metti waaw Alfi. <laughs> jël beneen pool bi dañ koo teel a xooy metti tey. waaw saf rek. <laughs> beneen pool bi nga xamul woor woor nawet bi passé na woor passé na nga xëy rek génn troisième naan damaa woor tey. <laughs> dégg terrorisme rek. alfi defoo ci kaan dégg terrorisme rek bëgg yokk ñaari. defoo ci kaan déedéet defuma ci kaan. kon damaa woor. <laughs> Aziz daal xam naa. koor bi ab ko digal. nee ko terrorisme boobu ngay dégg boo dëkkee woor duñu la laal. <laughs> nee na ma première bombe bu kalaate tiwaaw tiwaawoon laay yendu ji. <laughs> donc ñu jël ñu jël beneen yeneen couche yi xamante ni mooy ñëw tëj sandwich yi. Ah, sa mbokk alpulaar waaw xam nga dañ fi am ab ak ak alpulaar sëñ sëñ Assaw ak Ibrahima Lissa Faye <laughs> ñoom it bu ñu paree ñu jongante ji biti ji ci waañ wi. sax <laughs> bële lay seet. <laughs> moom bëri yëpp a ngi ah. ñëw ci eh. fromage bi. Uh-huh. ginnaaw bi ñu teggi sunu sunu sunu pool bi. attention ba bañ ko ciy dugal. donc kuddu bi rek la. Mhm. donc rappelez que tamit ay euh, xeetu fromage yi itam dafay neex ci sandwich parce que mooy mooy andi euh, calcium yi nga xamante ni sunu yaram daf koy soxla. te baax na tamit ci xale yi. donc ñu jël beneen couche yeneen couche yi te sa sunu sunu sunu sandwich yi. donc bu ñu ko tëjee nag après dañ koy trempé maanaam ci nen boo xamante ne dañ ko batti ah. pour mu. <laughs> non Aziz Aziz dog nga. Aziz dog nga ah non ah, boobu dog nga. non non non Aziz ki àndul ko ak <laughs> waxul woon ca léegi lay doog a wax ah. <laughs> donc ñu jël ñu jël nen yi. ñoom tam def ko ci biir. jant bi dégg naa nag vingt vingt une lay sotee. <laughs> donc <laughs> def ci tuuti xorom. Fatou <laughs> ki neex na ko sànq ci météo gi vingt une heure la jant bi soo yeboo rek jéem a jege sami sami daal bi la gën a jege. ak météo Ndakaaru da nga xëy tàngoor dépense yi gasoil bi. histoire yi ci mbedd bi. wallaay. moo tax al fi baax fi lekk am na solo de lekk da lay may kàttan booy siburu sax hmm. fekkoon nga daan lekk sa yaram am kàttan ah, alaaj Mor Mbaye daan mu siburu yi watatu rek daawul <laughs> nanguwul lekk Sénégal dañ daan da bëgg lekk mais nit da war a bëgg lekk lekk gu baax nag ah, lekk waa lekk bu baax lekk bu varié lekk boo xamante ni di nga ci am apport am ci ay protéines muy yàpp bi. am ci ay calcium. Euh, yoo xamante ni fromage moo koy indi ba pare mhm. xam nañu nen tamit ci aliment yi gën a complet la. dafa am dafa am ay richesse donc moom tamit. daf mhm. ci daf ciy am solo. Mhm. mais ba tey suñu defaree ay xeetu sandwich yu mel nii. terewul ñu defar suñu benn salaat ci côté bi. accompagner ko parce que fruits et légumes itam il faut pas fàtte ko. parce que mooy suñu ay passeport santé. donc dañuy tremper sandwich bi ci biir nen bi aller retour soo ko tegaat ci poêle bi pour mën ko saaf. maanaam li mooy andi effet ah. sandwich frit bi maanaam soxlawul muy yàgg ci nen bi parce que ay pain de mie la ah, ah. ndekete ñu teg ko ni Aziz sa wax rek waaye la régie laa xamatuñ li ñuy liggéey. maawo maawo maawo maawo du nit. déet maawo Adja sa jigéen. <laughs> doy la fi mu ngi jaawale bouton yi. <laughs> donc nii rek la tonton Assane. Euh, uh-huh. le temps que ñuy defar yeneen yi. dañ koy bàyyi ba mu doore. Mhm. ñu tourner ko suñu paree nag conserver ko ci four bi pour mu mën a tàng. Mhm. bu ñu koy déguster en privé mu nekk lu gën. incha allah donc lii rek mooy sunu ay sandwich privé toujours avec les beurres sautés. Alphie kër gi waxuñu wàllu budget yokk budget bi dépense yi pour parce que sandwich yi xam nga war ta yem ci équipe yeewu leen rek war nañ di ngay tibbal DG son adjoint n'est-ce pas l'administration ma génn fi ñëpp mere ma je ne ma ndékki bi ci yéen rek yokk budget bi parce que caméraman yi ni ñu koy xëccoo nii xam naa ni dañ ko rusa ñoom rek ay lekk caméraman yi rek ay lekk xaw ma nu mu tudd waaye Oh, jaral na ko lu ne. Euh, jaral na ko xeex. ma ne petit petit le nouveau marié la moo ah, gën a bëgg a lekk laa wax man kay jabaram bu ma boo rek ñi ma wàññi. moom du ndékki suba dem petit xam nga lay ndékki di gërëm bu baax ba Sofia ndax ni ma ko waxee ci la di lekk bu baax ba boo si buuroo mën a doxal sa bopp dem hôpital. day doo lekk dajale koppar naya naya naya lekk ci rek sow ci mbedd yi ba bu si bureau doo mën a dox dem hôpital alaaj Mor Mbaye de alaaj Mor Mbaye de nee na feebar du reykat ñàkk a lekk la yóbbu ba ci feebar nga dee <laughs> jërëjëf Alphie kon ñu ñu ñëwaat ci waañ yi wala ku nekk ngay saaf waaw le temps que ñuy saaf rek di ko mel parce que nii rek le même procédé lay reprendre très sama ingrédients yëpp jeex après ñu mhm. déguster merci <laughs> jërëjëfati Ibrahima Lissa euh, kon ñu del si vraiment ci plateau bi ndax ni ko sëñ Sow waxee sa bët yëpp a ci waañ wi <laughs> séeréer beeg tukulóor bi rek moom xaw ma kan moo ci euh, buuru moroomam mais euh, presse en ligne bi nga jiite vraiment jàmbat yi bari nañu donte ñëpp ay jàmbaar lañu parce que lépp rek ci avancement la jamono moom ak modernisation mais li ciy rax souvent rek mooy dina bon a bon bonaay goo xam ni li ci baax sax doo ko doo ko talati te pourtant bu dee xam-xam la mu ngi ci internet bi bu dee ay gëstu rek ci nit ki bëgg ko jaar ci yoon yu baax yi mën na fa am xam-xam tout est là-dedans c'est comme ni ñu ko waxee euh, toutes les connaissances sont dans les livres mais naka lañ mën a def nag ba gën ko segg quand même ba saaga yi boo ubbee internet tey jii bu ñu la ci dugalee sa photo sax ñi la xam ak ñi la bañ ak ñi ñi la bëgg a sosal ñëpp ci la ñuy profité di saaga lu tax yéen les responsables du ngeen quand même segg loolu. Euh, jërëjëf El euh, comme ni nga ko waxee rek internet bi moom lépp lépp a ngi ci. Mhm. et ku ci nekk rek ak fi ngay jublu ak li nga xam ne moo la soxal nga dem nga wuti ko fa yaakaar naa ne euh, saaga yeeg ak yu bari ñuy wax. Mhm. am na ci loo xam te ne wàññeeku na même bu dee. Mhm. ba léegi it am na loo xam te ne mi ngi fi. mu ngi des euh, ndaxte appel association bi nga xam ne moo jiite éditeur presse en ligne bi bi ñu fi tegee ba léegi ñu ngi nekk di xeex ci loolu. léegi nii sax léegi bi ñu demee assemblée générale juillet bi passé dañuy gën a joxaat doole commission éthique et déontologie. Mhm. Euh, benn professionnel moo ko jiite mi euh, Cheikh Sadibou Seye bu jiite Ndar Info. e kooku noonu sax maanaam ku gis mailam Uh-huh. parce que chaque fois mi ngi def ay rappel à l'ordre def ay mise en demeure dem bay saisir sax CORED pour rek yenn euh, ñaaw ñaawteef yi ak uh-huh. yenn jafe-jafe yi ñuy gis ci biir internet bi mu wàññeeku. Uh-huh. ndaxte dañu xam ne en fait nit ñi suñu point faible mooy dérive yi ñuy wax mooy saaga yi ñuy wax mooy yenn yu ñaaw yi ñuy génnee ba moo tax mu nekk nii léegi dañ ci xaar suñu tànk tubi di ci xeex ba nga xam ne ñun suñu biir am na maanaam benn benn kuréel goo xam ne ñu ngi ci biir internet bi à chaque fois en tout cas ñu gis benn ñaawteef muy photo muy saaga wala muy lan loo xam te ne vraiment rafetul ci bët automatiquement da gis Cheikh Sadibou Seye moomu daal di bind interpellé waa ji wala keneen bind interpellé waa ji ñu waxtaan suñu biir ba ñu dindi ko te kenn du yëg mhm. euh, bu fekkee dafa jéggi dayoo nag boobaa nag ci la ñuy saisir le CORED. waaw CORED daal di ci jël ay kii ay euh, d'ailleurs sax condamnation CORED bi mujj nii ñetti site la boole euh, daal di leen donc ba tax na euh, liggéey boobu noonu ñi ngi ci dafa yombul nag. Mhm. mais pour mu yomb il faut que autorités yi jàppale ñoo ndaxte ñun suñu wàllu bopp xam nañ problème yi defoon nañ benn euh, benn rencontre bu mag en tout cas ca Saly ñëpp ñoom ñëpp teewe woon nañ kër ba ñu am ay conclusion lépp mais conclusion yooyu noonu fi mu nekk mënuñu ko jëfee en même temps aussi li nga xam ci ne moom mooy dooleel presse bi muy code la presse bi. Mhm. nga xam ci ne moom moo jox gëdd correct bu mën a sanctionné mën a dawal defal yoon code la presse bi mi ngi fi. député yi ñoo ko war a voté bëgguñu ko voté euh, état bi lu mu ci war a def kas néew sax pour mu delluwaat nit ñi mën ko xoolaat yëraat ko jubbanti ko sax defuñu ko donc fi mu nekk nii euh, mën nañu xas euh, taskati xibaar yi ŋàññi ñi nga xam ci ne ñoo nekk ci internet bi waaye nañu xam ne la bal est dans le camp de l' état ah. parce que fi mu nekk nii jumtukaay yi nga xam ci ne moo war a mën a permettre nit ñi ñu mën a légiférer ñu mën a maanaam tegg fi yi ñuy joytu yëpp ñoom ñoom ñoo ko yor et tant que nag waxuñu ci nag mbir mi day gën a continuer te jamono jii nii nañ dëgg c'est vrai que ci liberté de presse liberté d'expression la ñu nekk mi nit ku xëy suba rek war na mën a génne sitam et moo tax yan ñooy critère justement d'installation de site de yow doo journaliste du sa métier yan euh, yi nga xam ne teg nañ ko pour nit ki mën a ubbi sitam ne dafay dafay am prétention wu joxe xibaar xam nga critères yooyu noonu euh, boo xoolee loi sur la sur les transactions électroniques maanaam wax na ko maanaam amul benn préalable euh, demande d'autorisation wala ni quoi que ce soit mais maanaam am na ay yoo xam ne da nga ko war a respecté maanaam ki nga xam te ne mooy éditeur bi borom site bi dafa war a wax site bi lu ko tax jóg ba pare bind ci ay numéro téléphone ak ay kii yoo xam te ne maanaam bu amee benn jafe-jafe wala benn kii bu ndaw rek bu ñu ngàññi Alaaji Asan lu ndaw rek mën na woote ci saa si wax ñu dindi ko mhm. information benn seconde wala benn minute bu mu def rek li muy yàq pour defaraat ko ay ati at lay doon. dëgg ba moo tax maanaam nit ki nga xam ne moom ci itam dafa war a am contact am bu nekk ci xam ne fu ko waaye bu ne jot dina ko jot wax mu ko dindi lu mu gën a gaaw lu mu gën a yéex. aussi pénalité yi di gën a doy waar. Mm-hmm. ndaxte it euh, loi bi. Mm-hmm. c'est vrai dajul lépp waaye am na as néew loo xam te ne mi ngi fii et naa. nit ñi am nañu ay exemple de de de personnes qui ont été sanctionnées. parce que aussi souvent Sénégal du ay texte ay loi moo fi manqué mais dans les faits parce que aussi nit ñi boo gisee ñu kon ne di kon ne yenn sañ-sañ yi damaa ragal ni ba tey maslaa maslaa ngi fi. waaw sanction yi fi jot a am euh, CORED moo ko def. Mm-hmm. CORED moo ko def te li mu mën a def mooy maanaam euh, blâme avertissement ak yooyu noonu tant code de la presse bi voté wuñ ko. Mm-hmm. te jot nañ fi sanctionné xibaaru jot nañ fi sanctionné suñ suñu gaal 24. jot nañ fi euh, it sanctionné IGFM. en fait mm-hmm. avertissement ak yooyu noonu. Mm-hmm. donc maanaam ay kii la yoo xam ci ne maanaam euh, fi nekk nii CORED moo ko mën a def te CORED tant que kii bi CORED code de la presse bi voté wuñ ko maanaam dañ koy tënk. Mm-hmm. mënul def lu bëri. waaw ah. mënul def lu bëri li waral coow li Ibrahima Lissa mooy fan yi gis nañ ay saag naam mais saag ma koy waxee moo mujjee ñëw. léeg-léeg gis ay vidéo yu bon ay jëf yoo xamante ne wax dëgg yàlla ñun suñu aada xamu ko suñu culture xamu ko mais dañ koy jàllale ci internet bi parce ci wàllu commercial gi aussi le nombre de vues euh, lu ci gën a bari rek ci xam nga xel dafa dañ kumpa ni ñi léeg aussi mbon mbon mooy dañuy bëgg a dem découvrir ko surtout xale yi est-ce que mënuñu mënuñu mën a jéem a dakkal loolu aussi. xam nga El Hadj wax nga ko léegi maanaam ñi di créer site yëpp li leen intéressé mooy clic bi. Mhm. et pour ñu am clic boobu bu ñu ci amul éthique ak déontologie da leen jaral lu ne. lan mooy clic bi ak lu ma lu mu ñaa naka lay tollool ci koppar yi est-ce que wala c'est c'est quand même dévoilé des euh, est-ce que mënuñ ko xam pour am une idée. non en fait mënuma ñëw wax ne maanaam clic bi lii lay jar. mais en tout cas lu ñu nit nit ñi lu ñuy gën a ñëw sa sit mu mel ni comme rajo li ñuy gën a déglu rajo bi. ngay gën a am xaalis ngay gën a am xaalis. ci wàllu publicité yi ci wàllu AdSense yi ak yeneen ak yeneen. moom moo tax. nit ñi fi mu nekk nii dañuy jël loo xam te ne sax du wala jël benn photo boo xam ne maanaam doy na waar trop. yow boo ko xoolee da nga nga jëm xam la nekk ci biir ñu def ko boo tëjee doo fekk dara. Mhm. donc moom maanaam culture clique boobu noonu xam loolu yëpp maanaam dafa laaj kenn waxul maanaam ñu tënk kenn wala ñu bàyyoone nit ñi wala ñu kii liberté d'expression. Mhm. mais loolu yëpp ñu organiser ko. Mhm. defar ko ba nga xam te ne maanaam nit ñi dañ am au moins benn éthique bi am benn respect bi. ndaxte aussi euh, clique boobu noonu warul yóbbee nit ñi musiba. te it aussi euh, ñi parce que peut-être dañ kumpa moo waral yenn yi mais boo xoolee euh, comme li ñuy wax rek. kii bi bëri na éventail de choix ah. yaa actuellement ñi ngi wax nekk ni ñu doon wax 150 mais fi nekk nii jege nañu presque 200 sites. 200 sites Sénégal. 200 sites sénégalais xam nga 200 sites moom xam nga loolu moom. day day metti lool. waay waay pour nit pour ñoom yaakaar nañ ñu ci nekk ñu ngi ci dund bu baax a baax am na ñoo xam ne sax fi nekk nii souvent dañuy bàyyi ba mu ëpp loxo même presse bi noonu la dañu toog rek ne wéy journalisme baa ngi yàqu di dem ba mu ëpp loxo pour defar sax dootul yomb xanaa da wàññi feebar rek justement justement moo tax nag euh, ñun de en tout cas ñun ñun suñu wàllu bopp am na ay euh, ponk yoo xam ne teg nañ ko di xaar état bi boobu saa su ne nag wax dëgg fa yàlla mm-hmm. ñu ngi interpellé ministère communication ministère wër mbir mi lépp. Mhm. ñi ngi leen interpellé ñu ngi wax ak ñoom pour rek ñu mën a fulaal code de la press bi waxtaanaat ci vraiment jàllale ko ndax presse bi mën a teguwaat ci yoon. ndax dañuy wax sa presse en ligne bi mais presse bi yëpp moo am gàllankoor presse bi yëpp moo am feebar. dëgg la te bu code la presse bi lu ñuy gën di yéex pour mettre en place jafe-jafe yi di gën di bëri. Mhm. nit ñi di gën am problème. Mhm. et li ngay wax mooy ci affaire u saag beeg yooyu noonu. c'est vrai euh, que presse am na ci responsabilité mais aussi kenn fàtte Facebook. Mhm. ndaxte Facebook léegi. Mhm. moo ëpp doole. waaye deux cent si boo ko boole woon teg dëgg la ndaxte fii su di fi créé wu yëpp ci Facebook ngay jaar pour mën a am vulgarisation pour mën a kii. Mhm. et donc am na ci loo xam te ni même bu ko waxul gars yi koy jël nekk fang Facebook dañu dem dugal ko Facebook wala ñu jël ko dugal ko YouTube. dëgg la bu ñu ko jëlee dugal ko YouTube dugal ko Facebook ñëpp jot ci. donc affaire bi yaatu. ba moo tax euh, yaakaar naa ne ndaw yi. Mhm. il maanaam ñu leen di euh, ja jàngat lañ koy wax xaw ma nu ñu koy waxatee. tàggat leen ñu tàggat leen. Mhm. Euh, vraiment ba nga xam te ne yéen dañ ko mën a moytu. ndaxte Facebook bi yaatu na. Mhm. YouTube bi mi ngi fi yaatu na. internet daal dekk na loo xam te ne fi nekk nii. mooy mooy kenn waxtu lu yees. Ah. mais dafa wër àdduna bi. et ba tax na maanaam il faut beneen nu ñu ko mën a gisee. ak neen lu ñu mën a organiser woo. ba société bi mën a bañ a basculer. Ah. ndaxte fi mu nekk ni crise des valeurs moom doy na waar. surtout surtout comment profiter de l' internet man loolu mooy sama sama sama préoccupation bu njëkk ay jumtukaay bu ñu ko indee <coughs> dañuy xool naka lañ ko mën a jariñoo pas nu muy yàqee suñu penc. justement hmm. xam nga euh, outil moom. Hmm. ça dépend ci ni nga koy jëfandikoo. Euh, jëfandiku boobu noonu moo waral tey jii nii Presse Afrique dem ba ci ak mu ne day mettre en place tali bi. Hmm. tali bi benn produit la boo xam ne képp koo xam day daawal oto rek. Ah. war na ko mën a utiliser. pour mën a repérer embouteillage yi moytu ko jaar ci yenn raccourci pour mën a dem et noonu en fait benn ponk benn ponk la rek. Mhm. nit nit xalaat utiliser seen xel xam ne carrément que ne internet mën nañ ko utiliser ñëpp mën ci jëfandikoo. Mhm. te yaa ngi yor portable. Mhm. keneen a ngi yor portable et puis ñëpp léegi presque smartphone la yor léegi bu dee yaa ngi ak application par exemple Talibi SN da dugg xool moo xam fi ngay jaar. keneen ak keneen Euh, ci wàllu lekk la. Mm-hmm. wala ci wàllu télévision yi la. wala ci lépp loo bëgg a def rek ci mu nekk jamono ji nii rek. Mm-hmm. war nañ ci mën a créer ay outils yoo xam te ne ci internet bi ci xarale yi ñu mën ci génn. Mm-hmm. ndaxte aussi euh, xel mi dañ ko def pour maanaam ku nekk mën ko jëfandikoo mën a am aussi loo xam ne dina am njëriñ pour ñëpp. dëgg la mais dafa mel ni internet euh, couteau double tranchant la. c'est-à-dire am na ci lu baax mais léeg-léeg même ci li ngay bëgg nay information di nga dugg site yoo xam ni ñuy wax ci wàllu santé mën na mën na nekk loo xam ni du du ay information yu wér c'est un peu dangereux parfois aussi doo xam yow naka nga ciy taxawee waaw xam nga loolu noonu maanaam am na lu ñuy wax la loi de la sélection naturelle mhm. am na ci booy di ñiy def lu bon may leen may leen benn diir bu ndaw rek du yàgg du yàgg mhm. mais ñi def lu baax moom nit ñi dinañ leen dem ba repérer leen xam leen xam ne ñii kat. Mhm. ci yoon bu normal bi lañ tegu. day sax te day sax. dina metti lool dina kii lool ndaxte fii nii. tegu ci yoon bon bi moo gën a yomb mhm. tegu ci yoon baax boo tegu ci yoon baax pour maanaam sax nga mën a rentabiliser li nga yor mhm. da ngay toog ay at di ñafe di ñafe di ñafe ba yàlla jàppale mais ba léegi rek euh, nit ñi Euh, li ñu naan euh, xam nañu euh, ñi ñi gàmmook ñi xas déet. Ah, ok xam nañ ñi gàmmook ñi xas déet jërëjëf jërëjëf Ibrahima Lissé ñu ngi lay gërëm amoon nañu yéene mu gën a yaatu parce que internet dafa laaj sax débat bu mag Sénégal. je pense que ni dinañ ko du ñàkk ñu mbébét ko incha allah ak li ci penc mi. Hmm. ndax it moom it dafa am doole lool neexut a xeexal Facebook bi. xale yi bu njëkkaan dañ naa wax da ngay tere sa doom mu génn nga tere ku ko seet si maanaam gars yi nga xam ne doxaankat yu mag yi ñoom of ak yooyu waaye léegi doxaankat yi soxlaatuñ dugg ci kër yi <laughs> fa ñu ne la ñu nekk seen portable mepp sa doom ci SMS mu génn ñoom daal àddina doy na waat ci kanam tuuti dinaa dalal euh, waa barke ji di as euh, saw sëñ as mu ngi fi teew kon ñu jublu ci publicité yi ñëwaat ci plateau bi di fàttali ne euh, barke ji li waral waxtaan yi mooy ñàkkum ndox ci askan yi loolu c'est très important ñu si gën a bàyyi xel di yokk ndox mi qualité bi léeg-léeg mu ñàkk ba askan wi dañ naan nañ ñu jox ndox rek waaye nan ñu jox ndox mu ànd ak qualité la ñu war di wax ndax mooy ak wàcc mooy wàllu wér-gu-yaram la ko mooy hôpital yi parce que santé yi bariwul <laughs> publicité yi ñëwaat ci plateau bi